yoona sar benn wàll ci lindiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yéesu ni ko yàlla jaarale ci yowaana ca njaalbeen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon moo di ki nekkoon ak yàlla ca njaalbeen ga ci moom lañu sàkke lépp amul dara lu ñu sàkk te jaarul ci moom ci moom la dund nekk te dund googu mooy leeral nit ñi leer gi feeñ na ci biir lëndëm te lëndëm gi jàpp ko yàlla yónni woon na nit ku ñu naan yaxya kooku ñëw na doon ab seede ngir wax ci mbirum leer gi ñëw na ngir ñépp dégg li mu wax te gëm moom ci boppam du woon leer gi waaye ñëw na ngir seedeel leer gi kàddu googu mooy leer gu wóor gi ñëw ci àddina te di leeral nit ku nekk ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñom nanguwuñu ko teewul ñi ko nangu te gëm ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla ñooñu judduwuñu ci deret walla ci bëgg-bëggu yaram walla ci coobarey nit ñu ngi juddu ci yàlla kàddu gi ñëw doon nit dëkk ci suñu biir gis nañu ndamam mu fees ak yiw ak dëgg ndam li baay bi jox jenn doomam ji mu am képp yaa ngi koy seede te yégle na lii nee na moo taxoon ma wax ne dina ñëw sama ginnaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu kàddu gi fees na ak yiw te ñun ñépp jot nañu ci suñu wàll mu barkeel nu ay yooni yoon li yàlla yi ci gémmiñu musaa lañu leen jaarale yiw wi ak dëgg gi yéesu Kirist moo ko indaale kenn mësul a gis yàlla waaye bajo bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle lii mooy seedees Yaxya amoon na bis sewut ya yónnee ay saraxalekat ca ya ñu ànd ak ñu soqi ci géeru Léwi ñu nga jóge Yerusalem ñëw ci moom di ko laaj mooy kan yi tontu na leen te nëbbu ci dara wóoral na leen ne moom du almasi bi ñu laaj ko ne kon yaay kan ndax yaa di iliyaas mu ne leen déedéet duma iliyaas ñu ne ko ndax yaadi di yonent bi war a ñëw mu tontu ne leen déedéet noonu ñu laaj ko ne wax nu yaay kan ngir ñu mën a tontu ñi ñu yónni nga ne yaa di kan yaxya tontu leen li yonent yàlla esaayi waxoon ne man maa di baat bi yëgle ci màndiŋ mi ne xàll yoonu boroom bi amoon na ñu bokk ca farisiyen ya yu àndoon ca mbooloo mën yónni woon ca yax ya ñooñu laaj ko ne ginnaaw doo almasi bi doo iliyaas doo yonent bi war ñëw lu tax ngay soob nit ñi ci ndox yaxya ne leen man maa ngi sóobe ci ndox waaye am na ci seen biir ku ngeen xamul kookooy ñëw sama ginnaaw te man sax yeyowuma tekki ay dàllam lii na ci dëkku betani ca ginnaaw dexu yurdaan fa yaxya doon sóobe ëllëg sa bi yaxya gisee yéesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mboteem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaar àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu xawma woon kooku kan la wara na doon waaye xamal ko bànni israyil moo tax mu ñëw di sóob nit ñi ci ndox ci kaw loolu yaxya seede na lii gis naa xelu yàlla mi ci meloo pitax mu jóge ci asamaan tegu ci moom bi loola laata am xamuma woon mooy kan waaye yàlla mi ma yebal may sóobe ci ndox ne woon na ma dinga gis xel mu selli mi wàcc tegu ci kaw nit kooku moo di ki leen di sóob ci xel mu selli mi yaxya teg ca ne gis naa loolu te seede naa ni moom moo di doomu yàlla ji ca ëllëg sa yaxya taxawaatoon na ca barab booba ànd ak ñaari taalibeem bi mu gisee yeesu muy romb mu daldi ne kii mooy mboteem yàlla mi ñaari taalibe ya dégg li mu wax daldi dem toppi yeesu yéesu gestu gis ne ñoo ngi koy topp mu ne leen lu ngeen soxla ñu tontu ko foo dëkk rabbi rabbi mi ngi tekki kilifa gi yeesu ne leen kaay leen gis noonu ñu dem seeti fa mu daloon ngonalal ko ca tàkkusaani kaw la woon kenn ci ñoom ñaar ñi déggoon li Yaxya wax te topp yéesu ma nga tuddoon André mi bokkoon ak Simon Pierre ndey ak baay André dafa daldi dem seeti simon ne ko gis nañu almasi bi baat boobu mi ngi tekki kirist noonu mu yóbbu ko ci yeesu yéesu xool ko ne ko yaa di simon doomu yowaana dinañu la wooye sefaas sefaas mi ngi tekki piyeer maanaam xeer cëlëg fas yéene dem diiwaanu galile te mu gis filip yeesu ne ko toppal ci man filip ma nga dëkkoon batsayda dëkku andre ak piyeer filip dajeek nataniyel ne ko gis nañu ki yoonu musaa wi ak yonent yi doon wax mi ngi tudd yeesu doomu yuusufa te dëkk nasaret nataniyel tontu ko ne aa ndax dara lu mbaax mën naa jóge nasaret filip ne ko ñëwal gis naka la yéesu gis natanayel jëmsi ci moom mu daldi ni ci mbiram xool leen nitu Israyel dëgg a ngee di ñëw du dox benn tànku caaxaan Natanayel ne ko noo ma xamee Yeesu tontu ko ne bilaa Filip di laata woo gis naa la bi nga nekkee ci kër garabu figg ga Natanayel wax ko ne kilifa gi yaay doomu yàlla ji yaa di buuru Israyel Yeesu tontu ko ne ndax li ma ne gis naa la ca kër garab ga moo tax nga gëm dinga gis mbir yu gëna a rëy yii noonu mu teg ca ne ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax dingeen gis asamaan ubbeeku malaaka yi baggante kaw ak suuf di wàcc ci doomu nit ki yoona fan ginnaaw loolu ak am ca kana ca diiwaanu galile yaayu yéesu teewe woon na ko wowoon nañu it yéesu ca ceet ga ak ay taalibeem ca biir xew wa biiñ ba daldi jeex yaayu yéesu ne ko amatuñu biiñ yéesu ne soxna si loo ma bëggal ndaxte sama waxtu jotagul yaayam daldi ne surga ya def leen lépp lu mu leen wax foofu amoon na fa juróom benn ndaa yu ñu yett ci doj yu yawut ya daan jëfandikoo ngir seen sangu set ndaa lu nekk mën naa def daanaka téeméeri liitar yéesu ne surga ya duy leen ndaa yi ñu duy leen ba ñu fees bay rambat noonu yéesu ne leen tanq leen ci léegi yot ko njiitu xew wi ñu daldi ko ci yot ci jiite xew wa ñam ndox ma yéesu soppi biiñ xamul woon fu biiñ booba jóge waaye surga ya ndox ma ñoom xamoon nañu ko naka noonu mu woo boroom céet ga ne ko ci xew yépp naan gu neex gi lañuy jëkke bu nit ñi doyalee ñu sog a génne ga ca des waaye yow danga dencoon gi gën a neex ba nëga ni firnde bi ame ca kana ca diiwaanu galile moo doon kéemaan gi yéesu jëkk a def ci noonu la wone màggaayam te ay taalibeem gëm nañu ko bi loolu weesoo moo ànd ak yaayam ay rakam ak i taalibeem dem dëkku kapernawum waaye yàgguñu fa màggalu yawut gi ñuy wax bésu jéggi ba mu ngi doon jub si yéesu dem yerusalem dugg ca kër yàlla ga bi mu fa demee fekk na ca ëtt ba ay jaaykati nag ak yu xar ak yu pitax ak wecckatu xaalis ya toog noonu yéesu ràbb ab yar daldi leen koy dàqe ngir ñu génn ëttu kër yàlla ga ñoom ak xar ya ak nag ya mu tasaare xaalisu weccikat ya daaneel taabal ya daldi ne jaaykat yi pitax ya jële leen fi lii sama kër baay bu ko def marse taalibeem ya fàttaliku mbind mi mii cawarte gi ma am ci sa kër mu ngi mel ni taal buy takk ci sama biir noona yëwute ne ko ban firnde nga woon ngir dëggal ne am nga sañ-sañu def lii nga def yéesu tontu leen daane leen kër yàlla gii ma daldi koy yëkkati ci ñetti fan ñu ne ko nga ni kër yàlla gii ñu tabax ci ñeent fukki at ak juróom benn mën nga ko yëkkati ci ñetti fan waaye kër yàlla gi yeesu doon wax nekkul woon ab tabax aw yaramam ci boppam moo ko taxoon di wax ginnaaw ga nag bi yeesu deyee ba dekki la taalibeem ya fàttaliku li mu waxoon daldi gëm mbind mi ak wax jaleen yeesu waxoon bi yeesu nekkee yerusalem ca màggalu bisu jéggi ba ñu bari gis kemaan yi mu doon def daldi gëm ci turam waaye yéesu wóoluwu leen woon ndaxte xamoon na leen ñoom ñépp te it soxlawul ñu koy xamal dara ci nit ndaxte moom ci boppam xam na xolu nit amoon na ca farisiyen ya nit ku ñu naan ni ko dem te mu bokk ci kilifay yawut ya genn guddi mu ñëw ci yeesu ne ko kilifa gi xam na ni yàlla la ni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula def firnde yi ngay wone te yàlla àndul ak moom yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla ni ko dem ne ko nit ku xas ba màggat nan lay mën a judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mën a bokk ci nguuru yàlla lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne faw ngeen judduwaat bu mu la jaaxal ngelaw fu ko neex lay jublu yaa ngi koy dégg waaye xamuloo fu mu jóge xamuloo fu mu jëm noonu la melit ci képp ku juddoo ci xelum yàlla ci baat yooyu ni ko dem ne ko nu loolu mën a amee yéesu tontu ko ne yow yaay jàngal bànni israel te xamuloo mbir yi ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax noo ngi wax li ñu xam di nettali li ñu gis waaye nanguwuleen leen gëm li ñu seede ginnaaw gëmuleen li ma leen di wax ci mbir yi àddina naka ngeen mën a gëme bu ma leen waxee ci mbir mbiri asamaan kenn musula yéeg ci asamaan su dul ki fa jóge muy doomu nit ki te itam na musaa sampe woon ab bant ca diggu màndiŋ ma takk ca jaar ju mu defare woon xànjar faw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gu jeex ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu jeex te doo sànk mukk yàlla yónnewul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen képp ku ko gëm deesu la daan waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndaxte gëmuloo ci turu doom ji yàlla am képp ci nii la àtte bi amee leer gi ñëw na ci àddina waaye nit lëndëm gi lañu taamu ndax seen jëf yu bon képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ bëccëgu ndara kàmm waaye ku def lu jub day ñëw ci leer gi ngir ñu xam ne def na ay jëfam ci kanamu yàlla ginnaaw loolu yéesu ànd ak ay taalibeem dem ci biir diwaanu yude toog fa ak ñoom ab diir di soob nit ñi ci ndox yaxya moom itam doon na sóobe ci ndox ci dëkku aynoon ca wetu dëkku salim ndaxte diiwaan booba bari woon na ndox nit ñi daan nañu ñëw ci moom mu di leen soob booba tëjaguñu Yaxya ci kaso foofa ay taalibe ya tàmbalee welante ak benn yawut ci mbirum sangu set ci kaw loolu ñu dem ca ya ne ko kilifa gi ndax fàttaliku nga kooko nga seede woon te mu nekkoon ak yow ca ginnaaw dexu Yordaan moom de ma ngay soobe ci ndox léegi te ñépp a ngay dem ca moom yaxee tontu leen kenn mënula am dara lu ko yàlla joxul yéen ci seen bopp man ngeen seede ne waxoon naa ne duma almasi bi waaye dañu ma yónni ma jiitu si ko kiy céetal moomoom moom séetam waaye xaritu kiy céetal dafay taxaw di ko déglu tey bég bu déggee baatam mbég moomu moo di sama bos tey te fii mu nekk mat na sëkk li war moo di moom mu gën a màgg te man ma gën a féete suuf ki jóge ci kaw moo féete kaw ñépp ki jóge ci suuf nag ci suuf rekk la mën a bokk te ni niti àddina lay waxe ki jóge asamaan day wax li mu gis ak li mu dégg waaye kenn nanguwul li mu seede képp ku nangu seedeem nangu nga ni yàlla dëgg lay wax ndaw li yàlla yónni kàddu yàlla lay wax ndaxte mayu xel mu sell mi yàlla sol ci moom amul dayoo baay bi dafa bëgg doom ji te jox na ko sañ-sañ ci lépp ku gëm doom ji am nga dund gu dul jeex ku déggadil doom ji am loo dund waaye merum yàllaa ngi la tiim yowaana saar amoon na benn bis farisiyen yi dégg ne ñiy topp yeesu ñoo ëpp ñiy topp yaxya te ñi yeesu sóob ci ndox ñoo ëpp ñi yaxya sóob fekk yéesu moom ci boppam daawul soob kenn ci ndox waaye ay taalibeem ñoo daan soobe bi yéesu yégee loolu nag mu jóge yudde dellu diiwaanu galile bi muy dem galile waroon na jaar ci diiwaanu samari noonu mu egsi ci wetu dëkku sikar ci tool bi ba mayoon doomam yuusufa foofu la teenu ba nekkoon yéesu toog ca pindu teen ba di noppalu ndax coonab tukki ba ci digg bëccëg la woon noonu jigéenu waa samari ñëw fa di root yeesu ne ko may ma ndox ma naan fekk booba nag taalibe yeesu ya dañoo demoon ca biir dëkk ba di jënd lu ñu lekk jigéen ja tontu ko ne yow ngay yawut man may jigéen ju dëkk samari nan nga ma mën ñaane ndox jigéen ji wax na loolu ndaxte yawut ya bokkuñu woon ak waa samari ndab yu ñuy lekke noonu nag yéesu tontu ko soo xamoon li yàlla maye xam ki lay ñaan ndox kon yow ci sa bopp yaa koy ñaan te moom dina la may ndoxum dund jigéen ja ne ko sang bi teen bi xóot na te amuloo baag kon foo jëlee ndoxum dund xanaa kañ xalaatuloo ni yaa gën a màgg suñu maam yanqooba moom mi nu gasal teen bii mu naan ci moom ak i doomam wëgg ci juram yéesu wax ko ni ku naan ci ndoxum teen bii balaa yàgg mu maraat waaye ndox mi may joxe ku ci naan du marati mukk ndaxte day nekk ci moom bëtu ndox buy bal di joxe dund gudul jeex noonu jigéen ji daldi ko ni sang bi may ma ci ndox moomu ngir ma bañ a teemar bay ñëw fii di root si yéesu ne ko demal woowu sa jëkkër te ñëw jigéen ja tontu ko ne ma jëkkër de yéesu ne ko wax nga dëgg ne amuloo jëkkër ndaxte amoon nga juróomi jëkkër te ki nga nekkal léegi du sa jëkkër li nga wax dëgg la jigéen ja ne ko sang bi gis naa ni ab yonent nga nun nag naka jekk sunuy maam ci tund wee ngay séen lanu daan jaamoo yàlla waaye yéen yawut yi dangeen ni yerusalem lañu wara jaamoo yàlla yéesu ne ko jigéen ji gëmal li ma lay wax dina am jamono joo xam ne du ca tund wële te du ci yerusalem ngeen di jaamu baay bi yéen waa samari xamuleen li ngeen di jaamu nun yawut yi xam nanu li nuy jaamu ndaxte kiy musal àddina si ci yawut yi la jóge waaye jamono dina ñëw te agsi na ba noppi jamono joo xam ne jaamukat yi dëgg dinañu jaamu baay bi ci xel ak ci dëgg ñooñu nag ñooy jaamu baay bi ni mu ko bëgge yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg jigéen ja ne ko xam naa ni almasi bi maanaam kirist dina ñëw te bu ñëwee dinañ leeralal lépp yéesu tontu ko maa di almasi bi man miy wax ak yow noonu nag taalibe yeesu ya dellusi gis muy wax ak ab jigéen ñu daldi jaaxle lool waaye kenn ñimiwu ko woon ne looy laaj lu tax ngay wax ak moom noonu jigéen ya wàcc fa njaqam daldi dem ca dëkk ba ne leen kaay leen gis nite nga fee ku ma wax lépp lu ma mës a def ndax kooku du almasi bi noonu waa dëkk ba jóg jëm ca yeesu fekk taalibe yeesu ya di ko gëtën ne kilifa gi lekkal waaye yéesu tontu leen am naa ñam bu may lekk te leen ko taalibe ya nag di laajante naan ndax dafa am ku ko indil lekk yeesu ne leen sama ñam moo di def coobare ki ma yónni te àggale liggéey bi mu ma sant du dangeen naan fii ak ñeenti weer ñu góob waaye man dama leen naan xool leen tool yi ñu ngi ñor ba weex tàll di xaar ku leen góob kiy góob tool yi mu ngi jot xaat peyam day dajale nit ñi ngir dund gudul jeex ni ñuy dajale pepp kon boog kii jii dina bégandoo ak kiy góob wax ji nu wax ne kenn dina ji keneen góob dëgg la yebal naa leen ngeen góob tool bu ngeen beyul ñeneen a ko bey te yéen a ko jariñoo bi jigéen ji ne waa dëkk ba wax na ma li ma def lépp ñu bari gëm nañu yeesu ñu daldi dikk ñaan yeesu mu dal ak ñoom yéesu toog fa ñaari fan ñu bari gëm ko ndax li mu doon wax ñu ne jigéen ji léegi gëm nañu te du li nga wax moo tax waaye li ñu gisal sunu bopp te xam nanu ne dëgg-dëgg kii moo di musalkatu àddina si bi yeesu amee ñaari fan ca dëkk ba mu jóge fa jëm diwaanu galile ndaxte moom ci boppam ne woon na ab yonent kenn du ko fay daal cim réewam bi mu agsee galile nit ñi teeru ko ndaxte ñoom itam teewoon nañu màggalu bés jéggi ba ba ca Yerusalem te gisoon nañu la mu fa defoon lépp noonu kon mu dellusi si ci Galile dëkk ba mu soppee woon ndox ma biiñ amoon na benn dagu buur bu dëkkoon Kapernaum te doomam feebar bi mu déggee ne Yeesu jóge na Yude ñëw Galile mu dikk ci moom ñaan ko mu ñëw këram wéral doomam ji wopp bay bëgg a dee yeesu ne ko yéen daal du ngeen gëm mukk fii ak gisuleen ay firnde walla ay kéemaan dagu buur ba neeti ko sang bi ñëwal balaa sama doom di dee yeesu ne ko demal sa doom dina dund kilifa ga gëm la ko yéesu wax daldi dem bi muy dellu këram nag ay surgaam gàttandu ko ñu daldi ne ko xale bi dina dund mu laaj leen ci ban waxtu la tàmbalee tane ñu tontu ko ne démb ca njolloor la am ak féex noonu bàyyu xale ba daldi seetlu ne ca waxtu woowa la ko yéesu ne woon sa doom dina dund moom ak njabootam gépp ñu daldi gëm yéesu lii mooy ñaareelu firnde bi yéesu def ci galile ginnaaw bi mu jógee yi yudde juróom ginnaaw loolu yewut yi amoon nañu genn màggal moo tax yéesu demoon yerusalem ca wetu benn ca buntu dëkk ba nag maanaam ci buntu xar ya am na fa bët bu tudd betesda ci làkku yawut te ñu wërale ko ak juróomi mbaar ca suufi mbaar yooyu la jarag yu bari yu deme niki ay gumba ay lafañ ak ay laggi daan tëdd di xaar ndox mi yëngatu ndaxte ci ni ñu ko nettalee benn malaakaam borom bi daana wàcc leeg-leeg di jax ndox mi bu ndox mi masaa yëngu ba noppi jarag ju ca jiitu wopp joo aman daldi wér ca saasa amoon na fa benn waay bu feebaroon lu mat fanweeri at ak juróom ñett bi ko yeesu séenee mu tëdd te mu xam ne woppam ji yàggoon na lool mu laaj ko ne ndax bëgg nga wér jarag ya tontu ko ne sang bi duma am ku ma sóob ci ndox mi bu yëngoo su ma ci fexee dem ñu jëkk ma ci yeesu ne ko jógal jël sa basaŋ te dox ca saa sa mu daldi wér jël basaŋam daldi dox mbir moomu dafa daje woon ak bisu noflaay ba looloo tax ba yëwut ya daldi ne nit ku wér ka tey bisu noflaay la te sunu yoon aaye na nga yor sa basaŋ mu ne leen ki ma faj moo ma jëlal sa basaŋ te dox ñu ne ko nag ku la ne jëlal sa basang dox waaye waa ji xamul ki ko wéral fekk boobu yéesu dem na te nit ñu bari teewoon nañu ca barab ba bi ñu ca tegee ab diir yeesu dajeeg moom ca kër yàlla ga ne ko déglul fi mu ne wér nga bul defati bàkkaar ngir ragal lu yées lii dal la noonu nit ka dellu ne yawut ya fajoon looloo tax yawut ya di wuta sonal yeesu ndaxte daan na jëfe noonu bésu nooflaay ba waaye yeesu tontu na leen ne sama baay nekk na ba tey ci liggéey kon man itam damay liggéey baat boobu moo tax ba yawut yi gën koo wuta rey ndaxte yëmul woon rekk ci bañ a topp ndigalu bésu nooflaay ba waaye dafa wax it ne yàlla baayam la ba teg boppam yàlla noonu yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax doom ji mënula def dara moom ci boppam li mu gis baay bi di def rekk lay def li baay bi di jëf la doom ji itam di jëf ndaxte baay bi bëgg na doom ji ba di ko won lépp lu muy def te dina ko won jëf yu ëpp kéemaan yii ngir ngeen gën a waaru maanaam ni baay bi di dekkale ñu dee ñi di leen jox dund gi noonu la doom ji di joxe dund gi ñi mu ko bëgg a jox baay bi du àtte kenn àtte bi yépp jox na ko doom ji ngir ñépp di teral doom ji ni ñuy terale baay bi ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jamono dina ñëw te agsi na ba noppi mooy jamono ji ñuy dee ñi di dégg baatu doomu yàlla ji te ku ko dégg dinga dund ndaxte ni baay bi amee dund moom ci boppam noonu it la ko maye doom ji mu am ko ci boppam jox na doom ji itam sañ-sañu àtte ndaxte mooy doomu nit ki bu leen ci dara jaaxal ndaxte jamonoo ngi ñëw ju néew yépp yi nekk ci seen bàmmeel di dégg baatam tey génn ñi daan def lu baax dinañu dekki dund ba faaw waaye ñi daan def lu bon dinañu dekki ñu daan leen mënumaa def dara man ci sama bopp ni ma baay bi di digale rekk laay àttee te sama àtte bu jub la ndaxte defuma sama bëgg-bëgg ci waawi ki ma yónni dong laay aw su ma seddalee sama bopp sama wax du am maanaa waaye keneen moo may seedeel te biir na ma ni la muy wax ci man dëgg la yéen yónnee ngeen ay ndaw ci Yaxya te seede na dëgg man ci sama bopp soxlawuma seedees nit waaye nag damay wax loolu rekk ngir ngeen mucc Yaxya meloon na ni làmp buy tàkk tey leeral te nangu ngeen a bànneexu ab diir ci leeram waaye yor naa ci man seede su gën a màgg si ma Yaxya di seedeel maa ngi def jëf yi ma baay bi sant jëf yooyu may def nag ñooy seede ne baay bi moo ma yónni te baay bi ma yónni moom itam seede na ma musuleen a dégg baatam te musuleen a gis xarkanamam te kàddoom saxul ci yéen ndaxte gëmuleen ki mu yónni yéen a ngi gëstu mbind yi ndax dangeen cee yaakaare dund gudul jeex mbind yooyu nag far ci sama mbir lañuy wax te bëgguleen a ñëw ci man ngir am dund wutuma tagg yu jóge ci nit waaye yéen xam naa leen leer na ma ne amuleen ci seen xol benn mbëggeel ci yàlla mën ñëw naa ci sama turu baay te nanguwuleen ma waaye bu keneen dikkee ci turu boppam ngeen nangu ko bëgg ngeen ku leen di tàgg te wutuleen ngërëm li jóge ci jenn yàlla rekk ji am kon nan ngeen mën a gëme bu leen xalaat ne maa leen di jiiñ dara ci sama kanamu baay musaa mi ngeen yaakaar moo leen di booleeg moom bu ngeen gëmoon musaa dingeen ma gëm man ndaxte seedeel na ma waaye su fekkee ne gëmuleen li Musaa bind kon nu ngeen mën a gëmee samay wax yoona saar juróom benn ginnaaw loolu yéesu dafa jàll dexu galile maanaam dexu tiberiyaad mbooloo mu bari topp ci moom ndaxte gisoon nañu firnde yooyu mu wone ba mu wéralee jarag ya yéesu daldi yéeg ca kaw tund wa toog fa ak ay taalibeem fekk na boobu bésu jéggi ba di màggalu yawut ya jub si bi yeesu xoolee gis mbooloo mu réy di ñëw ci moom mu ne filip fu nuy jële mburu munu leen mën a dundale bi muy wax loolu it da doon seetlu filip ndaxte xamoon na booba li mu nar a def filip ne ko peyug juróom ñetti weer sax bu ñu ko amoon du leen mën a doy ci mburu ba kenn ku nekk ci ñoom am ci dog wu ndaw keneen ca taalibe ya di André mi bokk ak Simon Pierre ndey ak baay ne ko am na fii ci mbooloo mi ab xale bu yor juróomi mburu ak ñaari jën waaye loolu lu muy jariñ mbooloo mu toll nii yéesu daldi ne taalibe ya na ñépp toog fekk ñax mu bari amoon ca barab ba noonu góor ñépp àgg suuf wara nañoo mat juróomi junni Yeesu daldi jël mburu ya gërëm yàlla ba noppi séddale ko ña fa toogoon mu jox leen itam jën ba ñu doyal sëkk ba ñu lekkee ba regg yeesu ne taalibe ya dajale leen desitu mburu mi ba dara du ci réer ñu dajale ko daldi fesal fukki pañe ak ñaar ak desitu juróomi mburu yi ñu doon lekk bi nit ñi gisee firnde jooju yeesu wone ñu ne dëgg-dëgg kii moo yonent bi war a ñëw ci àddina yeesu gis ne dañu ko nara jëlsi fal ko buur mu bàyyi leen fa dellu moom rekk ca tund wa bi timis jotee taalibeem ya wàcc ca tefes ga dugg ci gaal di jàll dex gi jëm dëkku kaparnawum booba guddi woon na te yeesu agseegul ci ñoom dex gi yëngu na lool ndaxte da doon ngelaw ak doole bi ñu joowee lu war a tolloog juróom benn kilomètre ñu seen yeesu muy dox ci kaw dex gi jëm ci ñoom ñu daldi tiit waaye yéesu ne leen man la bu leen tiit noonu ñu nangu ko dugal ca gaal ga gaal ga daldi teer ca saasa te fa ñu bëggoon a wàcc ca ëllëg sa mbooloo ma des ca geneen wàllu dex ga gis ne genn gaal ga fa nekkoon rekk dem na xam nañu ne yéesu bokk ko woon ak taalibe ya ndaxte ñoom rekk a àndoon waaye yeneen gaal yu jóge dëkku tiberiyaad ñëw teer ca wetu fa ñu lekke woon mburu ma gannaaw ba boroom ba sante yàlla ba noppi bi mbooloo ma gisee ne yéesu walla taalibe ya kenn nekkatu fa ñu dugg ca gaal yooyu dem seeti ko kaparnawum bi ñu fekkee yéesu ca geneen wàllu dex ga ñu ne ko kilifa gi kañ nga fi ñëw yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax firnde yi ngeen gis taxul ngeen may seet yéen a ngi may wër ndax mburu mi ngeen lekk ba suur buleen leen liggéeyal ñam wu yàqu li gën mooy ñam wu sax abadan tey joxe dund gu dul jeex ñam woowule doomu nit ki dina leen ko jox ndaxte moom la yàlla baay bi tànn mu nekk ndawam noonu ñu laaj ko ne lu ñu war a liggéey ngir matal jëf yi neex yàlla yeesu tontu ne jëf yi neex yàlla moo di gëm ki mu yónni ñu ne ko ban firnde nga nu mane woon ngir nu gëm la ban liggéey nga nar a def sunuy maam dunde nanu mànn ca màndiŋ ma ndaxte mbind mi nee na jox na leen ñu lekk ñam wu wàcce ca asamaan yéesu waxaat ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax du musaa moo leen jox ñam woowu wàcce ca asamaan sama baay ci boppam moo leen di jox ñam wu wóor wi wàcce ci asamaan ndaxte ñam wi yàlla di joxe mooy ñam wi wàcc ci asamaan tey jox àddina si dund ñu ne ko nag sang bi kon deenu faral di jox ci ñam woowee yéesu tontu leen ne man maay ñam wiy joxe dund ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar waaye wax naa leen ko ba noppi gis ngeen ma te taxul ngeen gëm képp ku ma baay bi jox dina ñëw ci man te duma dàq mukk ki may fekk si ndaxte wàccewuma ci asamaan ngir def sama bëgg-bëgg waaye damay matal bëgg-bëggu ki ma yónni lii mooy bëgg-bëggu ki ma yónni bu ma ñàkk kenn ci ñi mu ma may te dafa bëgg it ma dekkal leen keroog bés bu mujj ba ndaxte lii mooy bëgg-bëggu baay bi képp ku gis doom ji te gëm ko am dund gu dul jeex te bus bu mujj ba dinaa ko dekkal yawut ya tàmbali di ñu romtoo yeesu ndaxte dafa ne maay ñam wàcc ci asamaan ñu naan ndax kii du yeesu doomu yusufa xam nañu ndeyam ak baayam kon nag lu tax léegi mu naan mi ngi jóge asamaan yéesu ne leen bàyyi leen seen ñurumtu bi kenn mënula ñëw ci man te baay bi ma yónni xiirtalu la ci te man dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba yenent yi bind nañu kàddu gi yàlla dina leen jàngal ñoom ñépp kon nag ku déglu te nangu waxi baay bi dina ñëw ci man tekkiwul ne kenn mas naa gis baay bi ki jóge ci yàlla dong nga ko gis ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku gëm am nga dund gu dul jeex maay ñam wi joxe dund gi seeni maam lekk nañu mànn ca màndiŋ ma teewul dee nañu waaye ñam wi wàcc ci asamaan ku ko lekk doo dee man maay ñam wiy dund te wàcc ci asamaan ku lekk ci ñam wii dinga dund ba faw te it ñam wi may joxe ji sama yaram la dama koy joxe ngir àddina mën a dund noonu yewut ca werante werante bu tàng ci seen biir naan naka lanu waa ji mën a joxe yaramam ngir ñu lekk ko yeesu ne leen dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax bu ngeen lekkul yaramu doomu nit ki te naanu leen deretam du ngeen am dund ci yéen ku lekk sama yaram te naan sama deret am nga dund gudul jeex te dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba ndaxte sama yaram mooy ñam wu wóor wi te sama deret mooy naan gu wóor gi kiy lekk sama yaram tey naan sama deret dina sax ci man ma dëkk ci moom baay bi ma yónni mu ngi dund te maa ngi dund jaalale ko ci moom noonu itam ku may lekk dina dund jaalale ko ci man kon nag ñam wi wàcce ci asamaan a ngi noonu bokkul ak ñam wa seeni maam lekkoon te faatu ku lekk ñam wii may wax dinga dund ba faw baat yooyu la yeesu wax bi mu doon jàngale ca jàngu ba ca kaparnayom bi ñu dégloo yéesu ba noppi taalibeem yu bari nee nañu njàngale mii de jafe na kan moo ko mën a déglu yéesu gis ne taalibeem yaa ngi doon ñurumtoo loolu mu ne leen ndax li ma wax da a jaaxal lan mooy am nag bu fekkee ne gis ngeen doomu nit ki dellu yéeg fa mu jëkkoon a nekk xelu yàlla mi moo joxe dund ñam wi jariñul dara kàddu yi ma leen wax ci xelum yàlla lanu jóge ñoo joxe dund waaye am na ci seen biir ñu ko gëmul ndaxte yéesu xamoon na ca njaalbeen ga ñan ñoo ko waroon a gëmadi ak kan moo ko waroon a wor mu dolli ca it ne looloo tax ma ni kenn mënula ñëw ci man te baay bi mayu nga agsi ci loolu taalibeem yu bari dëpp bañatee ànd ak moom yéesu daldi wax ak fukki taalibe yi ak ñaar ne leen mbaa bëgguleen dem yéen itam simon piyeer ne ko borom bi ci kan lañuy dem yaa kàddu yi joxe dund gudul jeex léegi nun gëm nañu te xam nañu ne yaa di aji selli ji jóge ci yàlla yéesu daldi tontu ni leen xanaa duma leen tànn yéen fukk yi ak ñaar moo moona am na ci yéen koo xam ni seytaane la yuda mi doomu simon iskariyo la doon wax ndeke yuda li muy bokk lépp ci fukki taalibe yi ak ñaar moo ko naroon a wor yoona sar juróom ñaar ginnaaw loolu yeesu doon na wër diwaanu galile bëggul woon a dem diiwaanu yude ndaxte yawut ya dañu ko doon wuta rey fekk na bisu xewu yawut ya ñu koy wax màggalu mbaar ya mu ngi doon jub si noonu rakki yeesu yu góor ya ne ko jóge fi te dem diiwaanu yude ngir say taalibe gis ñoom itam jaloore yi ngay def ku bëgg a siiw doo nëbb say jëf boo demee bay wone jaloore yu mel nii fexeel ba ñépp gis la rakkam yi dañ doon wax loolu ndaxte ñoom itam gëmuñu ko woon yeesu ne leen sama waxtu jotagul ci yéen nag waxtu yépp a baax àddina du leen bañ waaye bañ na ma man ndaxte maa wax ni seeni jëf baaxul yéen nag demleen màggal ga demaguma màggal googu ndaxte sama waxtu jotagul bi mu leen waxee loolu ba noppi moom mu des galile bi rakkam ya demee ca màggal ga yéesu itam soog a dem te kenn yëgu ko siiwalul demam fekk yawut yaa ngi ko doon seet ca màggal ga te naan ana waa ji ca biir mbooloo ma ñu ngi doon déyante di wax ci ay mbiram ñi naan nit ku baax la ñe naan déedéet day nax nit ñi waaye kenn ñimewu ko tudd ca kaw ndaxte dañoo ragaloon yawut ya bi ñu demee ba ca diggu màggal ga yéesu dem di jàngale ca kër yàlla ga yawut ya nag jaaxle daldi ne nu waa ji def ba xam lii lépp moom mi jàngul yéesu daldi leen tontu ne li may jàngale jógewul ci man waaye ci ki ma yónni la jóge ku fas yéene wéy ci bëgg-bëggu yàlla dina xam ndax sama jàngale ci yàlla la jóge walla ci sama coobare nit kiy wax ci coobareem nag day wuta màggal boppam waaye kiy wuta màggal ki ko yónni dëgg rekk lay wax te jubadiwul fenn xanaa du Musaa moo leen jox ndigali yàlla yi waaye kenn ci yéen sàmm ko lu tax ngeen bëgg maa rey mbooloo ma ne ko xanaa danga am rab ku lay wut a rey leen benn jaloore rekk laa def te yéen ñépp ngeen jaaxle li leen musaa jox ndigalu xarafal gune yi jógewul kat ci musa mi ngi tàmbalee ci seeni maami cosaan moo tax ba ngeen nangoo xarafal nit ci bésu noflaay bi bu ngeen mënee xarafal nit ci bésu noflaay bi ngir bañ a wàcc yoonu musaa lu tax nag ngeen mere ma ndax li ma ci wéral nitu lëmm bàyyi leen di àtte ci ni ngeen di gisee te di àtte dëgg am na ci waa Yerusalem ñu doon wax naan xanaa du nit kii lañuy wutarey xool leen mi ngi waaraate ci biir nit ñi te kenn du ko wax dara ndax sunu kilifa yi dañoo xam ne mooy almasi bi waaye waa ji xam nañu fu mu jóge te saa almasi bi dee dikk kenn du xam fu mu bàyyi ko. Yeesu di jàngale ca kër yàlla ga daldi wax ca kaw ne ndax xam ngeen ma te xam fi ma jóge ñëwaluma sama bopp waaye ki ma yónni ku wóor la yéen xamuleen ko man xam naa ko ndaxte ci moom laa jóge te itam moo ma yónni noonu ñu koy wuta jàpp waaye kenn mënulu ko woon dara ndaxte waxtoom jotagul woon moo na nag ñu bari ca mbooloo ma gëm nañu ko ñu nga naan ndax bés bu almasi bi dikkee ay firndeem dina ëpp yu nit ki farisiyen yi daldi dégg la mbooloo ma doon déyante ci mbirum yéesu saraxalekat yu mag yi ak farisiyen yi yebal ay alkaati yu daan wattu kër yàlla ga ngir ñu jàppi ko yéesu wax ne dinaa nekk ak yéen fii ak ab diir soog a dem ci ki ma yónni dingeen ma seet waaye du ngeen ma gis te du ngeen mën a dem fa may nekk yawut ya di laajante ci seen biir naan fu muy dem fu nu ko dul fekk mbaadu dafa nar dem ca yawut ya gàddaaye ca gereg ya te jàngali gereg ya lan la baat yi muy wax di tekki dingeen ma seet waaye du ngeen ma gis ak du ngeen mën a dem fa may nekk bés ba mujjoon ca màggal ga moo ci ëpp solo keroog yéesu taxaw wax ca kaw ne ku mar na ñëw ci man ku gëm na naan ndaxte mbind mi nee na ndox mu bari muy dundale dina xellee ci dënnam booba li ko taxoon di wax mooy xelu yàlla mi ñi ko gëm naroon a jot fekk na joxe woon xelu yàlla mi ndaxte ndamu yéesu feeñagul woon bi ñu déggee wax jooja am ay nit ca mbooloo ma ñu naan dëgg-dëgg kii moo yonent bi war ñëw ñeneen naan mooy almasi bi ña ca desit ne waaye nan la almasi bi mën a jóge galile mbind mi wax na ni almasi bi ci xeetu daawuda lay wàcce te betleyem dëkku daawuda lay jóge noonu féewaloo daldi am ca biir mbooloo ma ndax yéesu am na ca ñoom ñu ko bëggoon a jàpp waaye kenn mënulu ko woon dara bi alkaati ya delloo saraxalekat yu mag ya ak farisiyen ya laaj leen ne lu tax indiwu leen ko alkaati ya ne leen kenn musula waxe ni nit kooku noonu farisiyen ya laaj leen mbaa naxuñu leen yéen itam ndax am na kenn ci saraxalekat yi walla ci farisiyen yi ku ko gëm déedéet waaye mbooloo mi xamuñu yoonu musaa ñu alku lañu dem bokkoon na ca farisiyen ya fa nekkoon fekk moo seeti woon yéesu lu jiitu mu ne leen ndax ci sunu yoon mën nañoo daan kenn te dégluwuñu ko mbaa ñu xam lu mu def ñu tontu ko ne mbaa du yow itam danga bokk ci diiwaanu galile gëstul kon dinga xam ni benn yonent a jóge galile yoona saar juróom ñett ginnaaw loolu ku ci nekk dellu sa kër yéesu moom dem ca tundu oliw ya ca ëllëg sa ca fajar mu dellu ca kër yàlla ga mbooloo ma fa teewoon wër ko mu toog tàmbali di leen jàngal xutbakat ya ak farisiyen ya indi jenn jigéen ju ñu bettoon muy njaaloo ñu taxawal ko ca diggu mbooloo ma noonu ñu ne yéesu kilifa gi jigéen jii de dañu ko bett muy njaaloo ci ndigali yàlla yi jigéen ju njaaloo musaa dafa santaane ñu sànni ko ay xeer ba mu dee yow nag lu ci seen xalaat loolu nag dañu ko doon wax ngir seetlu ko ndaxte bëggoon nañoo tiiñal yéesu yeesu sëgg di bind ak baaraamam ci suuf bi laaj ya bare mu siggi ne leen ku musa la def bàkkaar ci yéen na ko jëkk a sànney xeer noonu mu sëggaat dellu di bind ci suuf bi ñu déggee loolu ñuy rocceeku kenn kenn mag ñi jiitu yéesu rekk des fa jigéen ja taxaw ca kanamam mu daldi siggi ne ko jigéen ji ana ñi la doon jiiñ njaaloo ndax kenn tegula tooñ mu ne ko kenn sang bi yéesu ne ko manit ci sama wàll duma la daan demal waaye bul defati bàkkaar yéesu jubluwaat ca mbooloo ma ne leen man maay leeru àdduna si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund pharisien ya ne ko yow yaay seedeel sa bopp kon li ngay wax du dëgg yéesu tontu leen maa ngi seedeel sama bopp teewul li may wax di dëgg ndaxte xam naa fa ma bàyyi koo xam fa ma jëm waaye yéen xamuleen fa ma bàyyi koo ak fa ma jëm ci gis-gisu àddina ngeen di àtte man duma àtte kenn teewul nag su ma demee bay àtte bu jub lay doon ndaxte du man rekk ay àtte waaye baay bi ma yónni daf ciy ànd ak man seen yoon dafa wax ne seedes ñaari nit a gën a wóor man maa ngi seedal sama bopp te baay bi ma yónni mi ngi may seedal itam ñu laaj ko ne kuy sa baay Yeesu tontu ne xamuleen ma xamuleen sama baay bu ngeen ma xamoon xam ko bi muy wax loolu Yeesu nga doon jàngale ca kër yàlla ga ci wetu fa ñu daan denc asaka ya kenn mënu ko woon a jàpp ndaxte waxtoom jotagul yeesu dellu na leen maa ngi dem dingeen ma seet waaye seeni bàkkaar ngeen di deyaale fa ma jëm du ngeen fa mën a dem yawut yay waxante naan nee na kat fa mu jëm duñu fa mën a dem mbaa du day xaru ji yéesu tontu ne yéen fii ngeen bawoo ci suuf waaye man ca kaw laa jóge àddina ngeen soqi ko waaye man bokkuma ci looloo tax ma ni ci seeni bàkkaar ngeen di dee bu ngeen gëmul ki ma nekk dingeen dee ci seeni bàkkaar ñu ne ko yaay kan mu ne leen li ma leen waxoon te njaalbeen ga li ma mën a wax ci yéen ba àtte leen bare na waaye ki ma yónni ku wóor la te li ma wax rekk laay jottali àddina xamuñu woon ni yàlla baay bee tax muy wax yéesu nag ne leen bu ngeen yëkkatee doomu nit ki dingeen xam ni maay ki nekk dingeen xam ne it duma def dara man ci sama bopp li ma baay bi jàngal rekk laay wax te it ki ma yónnee ngi ànd ak man musuma bàyyi ma wéet ndaxte li ko neex rekk laay def bi ñuy dégg yeesu di wax loolu ñu bari daldi koy gëm yéesu na yawut ya ko gëmoon bu ngeen saxee ci li ma wax nekk ngeen samay taalibe ci lu wóor te it dingeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel ñu tontu ko ne nun ci Ibrahima lañu soqi ko te mësunoo nekk jaamu kenn nan nga ñu mën a waxe ni dinañu leen goreel yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp kuy bakkaar jaamu bàkkaar la te jaam du bokk ci kër gi ba faw waaye doom moom ci kër gi lay bokk ba faaw kon nag bu leen doom ji defee gor dingeen doon ay gor tigi xam naa ni askanu Ibrahima ngeen waaye yéen a ngi may wuta rey ndaxte li may jàngale xejul ci yéen li ma sama baay woon laay wax waaye yéen li leen seen baay di wax ngeen di def ñu contu ko ne Ibrahima mooy suñu baay yeesu ne leen bu ngeen dee waa kër Ibrahima dingeen jëfe ni moom léegi nag yéen a ngi may wute rey man mi leen jottali dëgg gi ma jële ca yàlla Ibrahima deful lu ni mel li ngeen donne ci seen baay rekk ngeen di def ñu tontu ko ne nun de duñu doomi araam benn baay rekk lañu am mooy yàlla yeesu ne leen bu yàlla doon seen baay dingeen ma bëgg ndaxte ci moom laa jóge ñëw ci ndigalam ñëwaluma sama bopp waaye moo ma yónni lu tax déglu leen li ma leen wax li ko waral moo di mënu leen koo déglu seytaane mooy seen baay te bëgg-bëggam ngeen di bëgg di def boomkët la musa doon lu taxaw mukk ci dëgg ndaxte dëgg nekkul ci moom buy fen dëppoo na ak jikkoom ndaxte fenkat la te ci moom la fen soqi ko waaye man damay wax dëgg moo tax gëmu leen ma kant yéen moo mën a seede ne bàkkaar naa su ma waxee dëgg nag lu tax du ngeen ma gëm ku nekk doomu yàlla dina déglu ay waxam waaye nekkuleen doomu yàlla looloo tax du ngeen déglu yawut ne ko ndax danoo waxul dëgg bu nu nee nitu samari te danga am ay rab yeesu ne leen awma rab waaye sama baay laay teral te yéen dangeen may toroxal wutuma màggal sama bopp keneen a ma koy wutal te mooy àtte ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kuy sàmm sama wax doo dee mukk yawut ya ne ko léegi wóor nanu ne danga am ay rab ibraayima faatu na yeneen yépp faatu yow nga naan kuy sàmm sama wax doo ñam dee sunu baay Ibrahima faatu na mbaadu dangaa defe ne yaa ko gën a màgg yonent yi itam faatu nañu waaw loo teg sa bopp yéesu ne leen su ma dee màggal sama bopp du am sama baaye may màggal moom mi ngeen naan mooy seen yàlla xamuleen ko nag man maa ko xam su ma ne woon xamuma ko ab fenkat lay doon ni yéen waaye xam naa ko te maa ngi sàmm waxam seen baay Ibrahima bég na bi mu yégee sama ngan bi mu ko gisee it bég na ci lool yawut ya ne ko amaguloo juróom fukki at ba noppi naan gis nga Ibrahima yéesu ne leen ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax laata ñuy sàkk Ibrahima fekk na ma doon ki ñuy wax maay ki nekk noonu ñu for ay xeer bëgg koo sànni ngir rey ko waaye yeesu nëbbu génn kër yàlla ga saa juróom amoon na fu yeesu jaaroon gis fa waaju judduwaale gumba taalibeem ya laaj ko ne kilifa gi lu tax waa ji judduwaale gumba ndax bàkkaaram a ko waral walla bu waajuram yéesu tontu ne aajowul ci bàkkaaram walla ci bu waajuram waaye loolu dafa am ngir jëfi yàlla yi feeñ ci moom bëccëg lañu war a matal jëfi ki ma yónni guddi dina ñëwi goo xam ne kenn du ci mën a liggéey ci bi may nekk àddina maay leeru àddina bi yeesu waxe loolu ba noppi dafa daldi tifli jaxase lor wa ak ban tey ko ci bëti gumba ga ne ko demal sëlmu ci bëti silowe silowe mi ngi tekki yónni nañu ko gumba ga daldi dem sëlmu ji dellusi di gis dëkkandoom yi ak ñi ko xame woon bu jëkk ci yalwaan naan xanaa du kii moo daan toog di yalwaan ñii naan moom la de ñee naan du moom dañoo nuroo rekk mu daldi leen ne man la de ñu ne ko lu ubbi say bët mu tontu ne ku ñuy wax yéesu moo tooyal ban tey ko ci samay bët ne ma demal sëlmu ci bëtu silowe ma dem nag sëlmu ji daldi gis ñu ne ko ana waa ji mu ne leen xamuma fu mu nekk noonu ñu daldi indil farisiyen yi nit ka gumba woon ndekete yéesu bés ba mu tooyale ban ubbi bëti gumba ga bésu noflaay la woon looloo tax pharisiens ya di laajaat waa ji fu mu jaar bay gis léegi mu ne leen dafa tey ban ci samay bët mësal mujj ba fii ma nekk maa ngi gis ci noonu am ca pharisiens ya ñu naan ki def lii mënula jóge ca yàlla ndaxte toppul ndigalu bésu nooflaay bi ñeneen ñi it di wax ne nan la borom bàkkaar mën a wone yii firnde noonu ñu daldi féewaloo ci seen biir pharisien laajaat ko gumba woon ne ko yow loo wax ci moom yow de la ubbil say bët mu ne leen yonent la yawut ya mënuñoo won a nangu ne nit ka dafa gumba woon tey gis léegi ñu daldi woolu ji ay waajuram laaj leen ne ndax kii mooy seen doom ji ngeen ni gumba judduwaale la kon fu mu jaar bay gis léegi waajur ya tontu ne xam nañu ne daal suñu doom la te dafa judduwaale gumba waaye ni mu def léegi bay gis xamuñu ko te xamuñu it ki ko ubbil ay bëtam laaj leen ko magum jëmm la te mën naa tontul boppam ragal yawut ya nag moo taxoon waajari nit ka waxe noonu ndaxte yawut ya dañoo mànkoo woon ne képp ku seede ne yéesu mooy almasi bi ñu dàq la ca jàngu ba looloo tax waajur ya ne laaj leen ko magum jëmm la farisien yi dellu woowaat ku gumba woon ne ko waxal sa digganteeg yàlla xam nañu ne waa joojee boroom bàkkaar la mu tontu ne xamuma ndax boroom bàkkaar la am déet li ma xam daal mooy gumba woon naate léegi maa ngi gis ñu laaj ko ne lu mu la def nu mu la ubbile say bët mu ne leen wax naa leen ko ba noppi waaye dégluwu leen ma lu ngeen bëgg ci ma di ko wax di waxaat xanaa dangeen a bëgg a nekk yéen itam ay taalibeem ci kaw loolu ñu daldi ko saaga ne ko yow yaay taalibeem nun taalibey musaa lañu xam nañu ne yàlla wax na ak musaa waaye kii xamuñu sax fu mu jóge waaje ne leen loolu de doy na waar xamuleen fu mu jóge te moo ubbi samay bët xam nanu ne yàlla du déglu borom bàkkaar waaye nag dina déglu ki koy ragal tey def coobareem bi àddina sosoo ba tey mësuñoo dégg nit ku ubbi bëti gumbaak judduwaale kon nit kooke nag bu jógewul woon cee yàlla du mën a def dara ñu tontu ko ne yow ci biir bàkkaar nga juddoo ba noppi di jàngal noonu ñu dàq ko ca jàngu ba yeesu daldi yëg ne dàq nañu nit ka bi mu dajeeg moom mu ne ko ndax gëm nga doomu nit ki waaje ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm yéesu ne ko gis nga ko ba noppi te mooy kiy wax ak yow waaje ne boroom bi gëm naa la noonu mu jaamu yéesu yéesu ne ko atee ma tax a ñëw àddina ngir ñiy gumba gis ñiy gis gumba bi farisiyen ya nekkoon ak moom dégge loolu ñu ne ko xanaa kon ñu nit dañoo gumba yéesu tontu leen ne bu ngeen gumba woon du ngeen am bàkkaar waaye fii ak yéen ngi naan nu ngi gis ci bàkkaar ngeen di dëkk fukk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fu dul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la waaye ki jaar ci bunt bi mooy sàmm xar yi wattukat bi dina ko ubbil bunt bi xar yi dégg baatam xar yi mu moom nag bu ci nekk dina la woo ci sa tur ba noppi nga topp ko ci biti sàmm bi bu génnee yi mu moom yépp dina leen jiitu ñu topp ko ndaxte xam nañu baatam waaye duñu topp jàmbur dañu koy daw ndaxte miinuñu baatam yéesu misaalal na leen loolu waaye xamuñu li mu leen doon wax noonu yéesu newaat ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax man maay buntu gétt gi ñi ma fi jiitu ñépp ay sàcc lañu ak ay saay-saay waaye xar yi dégluwuñu leen man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc dinga mën a dugg ak a génn dinga amit mbooy goo mën a fore sàcc bi moom day sàcc si rekk di rey ak di yàq man dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange man maay sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ki dul sàmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar yi bu seenee bukki day daw bàyyi fa xar ya bu ko defee bukki ba dal ca coggal ja jàpp ca tasaare ya ca des boobu surga day daw ndaxte xaalis rekk lay liggéeyal faalewul xar ya man maay sàmm bu baax bi ni ma xame baay bi te baay bi xame ma ni noonu laa xame samay xar te ñoom it ni lañu ma xame te it kat dinaa joxe sama bakkat ngir xar yi am naa yeneen xar yu bokkul ci gétt gi war naa leen indi ñoom it te dinañu déglu sama baat benn coggalay am ak benn sàmm baay bi bëgg na ma ndaxte damay joxe sama bakkan ngir jëlaat ko kenn du ko jële ci man maa koy joxe ci sama coobarey bopp am naa it sañ-sañu joxe ko te am naa sañ-sañu jëlaat ko loolu la ma sama baay sant kàddu yooyee ñoo féewalawaat yawut yi ñu bari ca ñoom naan dafa ànd ak rab dafa dof lu tax ngeen koy déglu waaye ñeneen naan nit ku am ay rab du waxe nii ndax rab mën naa ubbi bëti gumba am bés ñu doon màggal ca Yerusalem bés ba ñu sele la woon kër yàlla ga ci jamonoy sedd la woon yéesoo nga woon ca kër yàlla ga di doxantu ci biir werandaa bu suleymaan yawut ya wër ko ne ko kañ nga ñuy dund ci kumpa boo dee almasi bi wax ko mu leer yéesu tontu ne wax naa leen ko ba noppi waaye gëmu jëf yi may jëf ci sama tuuru baay ñoo may seede waaye gëmu leen ndaxte bokku leen ci samay xar samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen di jox dund gudul jeex duñu sànku mukk te kenn du leen jële ci sama loxo baay bi ma leen jox moo gën a màgg lépp te kenn mënula jële dara ci loxo baay bi man ak baay bi benn lañu yawut ya daldi foraat ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko noonu yeesu ne leen def naa ci seen kanam jëf yu baax yu bari ci ndigalu baay bi ban ci jëf yooyu moo tax ba ngeen bëgg ma sànni ay doj yawut ya ne ko jëf lu baax taxul nu bëgg laa sànni ay xeer waaye dangay suufee turu yàlla yow nit rekk nga ba noppi di def sa bopp yàlla yéesu tontu ne bind nañu ci seen téereb yoon ne yàlla nee na ay yàlla ngeen yàlla wooye na ay yàlla ñi mu yónnee kàddoom te xam na ni kenn mënula randal waxi yàlla kon nu ngeen mën a waxe ne damay suufeel turu yàlla ndax li ma ni doomam la man mi yàlla tànn yónni ma ci àddina su ma deful sama jëfi baay bu leen ma gëm waaye su ma ko defee bu ngeen ma gëmul sax gëm leen boog samay jëf ngir ngeen xam te nangu ne maa ngi nekk ci baay bi te baay bi nekk na ci man ñu di ko wuta jàppaat waaye mu bàyyi leen fa dem yéesu génn jàllaat dexu yurdaan toog fa yaxe daan soobe ci ndox bu jëkk nit ñu bari ñëw ci moom te naan yaxya deful benn kéemaan waaye li mu wax ci kii yépp dëgg la noonu ñu bari gëm ko yonas saar amoon na benn waay bu woppoon ñu koy wax lasaar ma nga dëkkoon betani moom ak maryaama ak màrt mi mu bokkaloon ndey ak baay maryaama moo jigéen ji sotti ji laj koleñ ci tànki borom bi fompe ko kawaram moom la càmmañam lasaar woppoon ñaari jigéeni lasaar yónnee ca yeesu ne ko borom bi sa xarit wopp na bi yeesu déggee xabaar boobu mu ne lasaar de woppam jooju du ko mujje day wone ndamu yàlla tey màggal doomu yàlla ji yéesu soppoon na màrt ak maryaama ak lasaar bi mu yëgee nag ne lasaar wopp na mu toogaat yeneen ñaari fan ca barab ba mu nekkoon ginnaaw loolu mu ne taalibe ya nanu dellu yude taalibe ya tontu ko ne kilifa gi yàggul dara waa yude doon nañu la wuta rey ak i xeer nga di fa dellu yéesu ne leen xanaa du bëccëg fukki waxtoog ñaar la kuy dox bëccëg du fakastalu ndaxte day gis leeru àddina si waaye kuy dox guddi dina fakastalu ndaxte leer nekkul ci moom yéesu wax loolu teg ca ne sunu xarit lasaar nelaw na waaye maa ngi dem yee ko taalibe ya tontu ne borom bi bu nelawee kay kon dina wér yéesu dafa bëggoon a wax ne lasaar dee na waaye taalibe yi dañoo xalaatoon ne mbiri nelaw rekk lay wax ci kaw loolu yéesu wax ci lu leer ne lasaar dee na bég naa ngir yéen ndax li ma fa nekkul ngir seen ngëm gën a dëgër waaye nanu ko seeti noonu tomaa ki turam di tekki seex bi daldi ne yeneen taalibe ya nanu dem ñun itam deyandoo ak moom bi yeesu agsee mu fekk ne bi ñu dencee lasaar ak léegi mat na ñeenti fan betani ma nga ca wetu yerusalem diggant bi matul woon sax ñetti kilomètre yawut yu bari ñëwoon nañu kër màrt ak maryaama ngir defal leen ci seen deewu càmmeñ bi yeesu ñëwee màrt yëg ko dem di dajeek moom fekk booba maryaama nga toogoon ca kër ga màrt ne yeesu boroom bi boo fi nekkoon de sama càmmiñ li du dee waaye xam naa ni fii nu tollu sax loo ñaan yàlla mu may la ko yéesu ne ko sa càmmiñ dina dekki màrt tontu ko ne xam naa ni dina jóg bésu ndekkite la keroog bés bu mujj ba yeesu ne ko man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deeyee it dinga dund rax ca dolli kuy dund te gëmma ma doo dee mukk ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne waaw borom bi gëm naa ne yaay almasi bi di doomu yàlla ji war a ñëw àddina bi màrt waxee loolu mu daldi dem wooyu maryaama ne ko ci pet kilifa gaa ngi fi mu ngi lay laaj bi maryaama déggee loolu mu daldi jóg gaawantu dem ci yéesu te fekk duggagul woon ca dëkk ba waaye ma nga woon ba tey ca barab ba mu daje woon ak màrt noonu yawut ya nekkoon ca kër ga di defal maryaama gis ko mu ne bëreet génn ñu daldi koy topp defe ne day jooyi ca bàmmeel ba bi maryaama agsee nag ca yéesu ba gis ko mu daanu ci tànkam ne ko boroom bi boo fi nekkoon sama càmmiñ du dee yéesu gis ne mi ngi jooy te yawut yi ànd ak moom itam ñu ngi jooy mu daldi jàq am naqar wu rëy mu ne leen fu ngeen ko denc ñu tontu ko ne kaay gis sang bi yéesu jooy noonu nag yawut ya gis ngeen ni mu ko bëgge woon waaye am na ca ñoom ñu doon wax naan moom mi ubbi bëti gumba gi ndax mënul woon fexe ba lasaar du dee yéesu dellu am naqar wu rëy daldi dem ca bàmmeel ba pax la mu ñu yett ci doj ube ko xeer yéesu ne dindi leen xeer wi màrt jigéenu ku dee ki ne ko borom bi dina xasaw xunn fi mu nekk ndaxte am na ci bàmmeel bi ñeenti fan yéesu ne ko ndax waxuma la ni boo gëmee dinga gis ndamu yàlla ñu daldi dindi xeer wa yéesu xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay sant naa la ci li nga ma déglu ba noppi xam naa ni doo jóg ci di ma déglu waaye dama koy wax ngir nit ñi ma wër gëm ne yaa ma yónni bi mu waxee loolu yéesu woote ak baat bu dëgër ne lasaar ñëwal ci biti néew bi daldi génn ñu gis càngaay li ñu takke woon tànk yi ak loxo yi ak kaala gi ñu muure woon kanam gi yeesu ne leen tekki leen ko bàyyi ko mu dem yawut yu bari ca ña ñëwoon kër maryaama te gis li yéesu defoon daldi koy gëm waaye amoon na it ñu demoon ci farisiyen ya nettali leen la yéesu defoon farisiyen ya ak saraxalekat yu mag ya woo kuréelu attekat ya ne nit ki kat yi muy def a ngi bëgg a bari lu ñuy def nag ndaxte suñu ko bàyyee mu jàppoo nii ñépp dinañu ko gëm te kilifaay rom yi dinañu ñëw daaneel suñu kër yàlla gi tas suñu réew amoon na ca ñoom ku ñuy wax kayif te mu nekkoon saraxalekat bu mag ba at mooma mu ne leen xamuleen ci mbir mi dara xanaa xamuleen ne kenn nit rekk dee ngir ñépp mooy li gën ci yéen bu ko defee réew mi du tas loolu këyif waxu ko woon ci sagoom waaye li mu nekkoon saraxalekat bu mag ba at mooma moo tax yàlla xiirtal ko mu ne yéesu dina dee ngir réew mi du woon rekk ngir xeet woowu waaye ngir itam doomu yàlla yi tasaaroo yépp dajaloo nekk benn keroog la njiitu yawut ya dogu ci rey yéesu taxoon na ba yéesu dootul doxantu ca biir yawut ya noonu mu dem ca gox bu jege màndik ma ca dëkku efrayim foofa nag la toog ak ay taalibeem bésu jéggi ba di màggalu yawut ya mu ngi doon jub si ba ñu bari ca waa àll ba di dem yerusalem balaa booba ngir sangu ji seet ñu ngi doon wut yéesu tey waxante ca kër yàlla ga naan lu ngeen ci xam ndax dina ñëw ci màggal gi walla déet saraxalekat yu mag ya ak farisiyen ya daldi santaane ne bu kenn xamee fu yeesu nekk mu yégle ko ngir ñu mën koo jàpp ñaar juróom benni fan laata màggalu bésu jéggi ba yeesu dem na betani dëkku lasaar mi mu dekkal foofa ñu defaral ko fa reer màrt moo ko doon séddale te lasaar bokkoon na ca gan ya noonu maryaama daldi jël liibaru laj koloñ ju raxul ju ñuy wax naar tey jar lu bare mu sotti ko ci tànk yéesu ba noppi fompe ko ak kaarawam xeetu laj ko leen gi gelli ci kër gi yépp kenn ca taalibe yéesu ya muy yudaa iskariyo mi ko nara daldi ne lu tax jaayi ñu laj ko leen ji peyu atum lëmm jox ko miskin yi waaye bi muy wax loolu xalaatul woon miskin yi ndaxte sàcc la woon moo yoroon boyetu xaalis bi te daan ci sàkk waaye yeesu ne ko bàyyi ko jekkoon na mu denc ko ngir bés bu ñu may suul miskin yaa ngi ak yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faw bi ñu yégee ne yeesoo nga fa mbooloom yewut mu bare daldi dem betani yeesu rekk yóbbuwu leen fa woon waaye dañoo bëggoon a gisaale lasaar mi yeesu dekkaloon saraxalekat yu mag ya ci ne dañuy reyaale lasaar ndaxte moo waral yewut yu bare dëddu leen gëm yeesu ca ëllëg sa mbooloo mu bari ma ñëwoon te màggalu bésu jéggi ba yéeg ne yeesoo ngi jëm si yerusalem ñu daldi jël ceri garab génn di ko teeru ñuy xaacu naan osaana yow mi ñëw ci tuuru boroom bi ku barkeel nga na yàlla barkeel buuru israyel yeesu wut cumbur war ko ndaxte mbind mi nee na bu leen ragal waa siyon gis ngeen seen buur a ngi ñëw war mbaam mu ndaw yooyu yépp taalibe ya xamuñu woon ca saasa lu mu tekki waaye ginnaaw bi ndamu yéesu feeñee ñu fàttaliku ne mbind mi yégle woon na loolu ci moom te amal nañu ko ña nekkoon ak yéesu ñépp bi muy wooye lasaar mu génn ca bàmmeel ba te mu dekkal ko demoon nañu nettali lañu gis looloo tax mbooloo ma teeru ko ndaxte yëgoon nañu firnde boobu farisiyen yi nag di waxante naan gis ngeen mënu leen ci dara ñépp a ngi koy topp ca mbooloo ma amoon na ci ay grek yu bokk ca ña ñëwoon yerusalem ngir jaamu yàlla diirub màggal ga ñëw nañu ci filib mi dëkk betsayda ci diiwaanu galile ne ko sang bi dañoo bëggoon a gis yéesu filip dem wax ko andre ñu ànd waxi ko yéesu mu tontu leen ne waxtu wi ñu war a feeñale ndamu doomi nit ki jot na ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax fii ak pepp dugub ji wadd ci suuf jaarul ci dee du mën a weesu li mu doon pepp dong waaye bu deeyee dina jur pepp yu bari ku bëgg bakkanam dina ko ñàkk waaye ku ko bañ ci àddina si dina ko denc ngir dund gu jeex gi ku bëgg a doon sama surga na ma topp bu ko defee fu ma nekk fa lay nekk moom itam ku may liggéeyal sama baay dina ko teral léegi nag dama jàq lu may war a wax mbaadu dama naan baay musal ma ci li war a xew waxtu wii ñëw déedéet ñëw naa sax ngir jaar ci waxtu woowu baay màggalal sa tur noonu ñu dégg baat bu jóge asamaan naan màggal naa ko ba noppi te dinaa ko màggalaat mbooloo ma fa teewoon te dégg baat ba daldi ne dënnu la woon ñeneen naan malaaka doon wax ak moom waaye yeesu na leen taxuma baat boobu jolli waaye yéen a tax atteeb àddina si jot na léegi ñu daq malaaka mu bon mi jiite àddina si te man bu ñu ma yëkkatee ma tiim suuf dinaa wootal nit ñépp ci man ci baat yooyu la doon misaale ni mu war a faatoo mbooloo ma tontu ko ne jàng nañu ci suñu téere yoon ne almasi bi dina sax ba faw kon yow nan nga mën a waxe ne doomu nit ki dina yëkkatiku kuy doomu nit kooku yeesu ne leen leer gi dootul yàgg ak yéen doxleen ci bi ngeen dee am leer ngir lëndëm ban leen a bett ndaxte kuy dox ci lëndëm doo xam foo jëm kon ci bi ngeen dee am leer gi gëm leen ko ngir ngeen doon doomi leer bi mu waxee loolu ba noppi yéesu dafa dem nëbbutu ji leen firnde yi mu leen woon yépp taxul ñu gëm ko ngir li yonent yàlla esayi waxoon am borom bi ana ku gëm sunu waare kan la borom bi woon dooleem mënuñu woon a gëm ndaxte Esayi dafa waxaat ne yàlla dafa gumbaal seeni bët def ba ñu dëgër bopp ngir seeni bët bañ a gis seen xel bañ a xam ñu bañ a waññeeku ci man ngir ma wëral leen Esayi dafa wax loolu ndaxte gisoon na ndamu yéesu te mu ngi doon wax ci ay mbiram fekk na ci biir njiit yi sax ñu bari gëmoon nañu yéesu waaye farisiyen yee tax fesaaluñu ko ndaxte dañoo ragaloon ñu dàq leen ca jàngu ba ngërëmu nit te leen gënaloon ngërëmu yàlla yéesu yégle ne ku ma gëm gëmuloo ma waaye gëm nga ki ma yónni ku ma gis gis nga ki ma yónni ni ak leer laa wàcc ci àddina ngir ku ma gëm du des ci lëndëm ku dégg samay wax te topp leen du man maa koy daan ndaxte wàccuma ngir daan àddina waaye dama ñëw ngir musal ko ku ma beddeeku te nanguwul samay wax dina fekk fii li koy daan sama jàngale koy daan keroog bés bu mujj ba ndaxte waxuma ci sama coobare waaye baay bi ma yónni ci boppam moo ma sant li ma war a wax ak li ma war a jàngale te xam naa ne li muy santaane day joxe dund gu jeex kon li ma wax dama koy wax ni ma ko baay bi sante yoona saar fukk ñett laata màggalu bésu jéggi bala woon yéesu xamoon na ni waxtu wi mu war a génne àddina dem ci wetu baay ba jot na ku bëgg ñoñam yi nekk ci àddina la te bëgg na leen ba fa mbëggeel mën a yem yéesu ak taalibe ya ngi doon reer fekk na boobu seytaane xiirtal yuda doomi simon iskariyo ngir mu wori yéesu yeesu xamoon na ni yàlla joxoon na ko sañ ci lépp xam it ne ci yàlla la jóge te ca moom lay delluwaat mu daldi jóge ca reer ba summi mbubbam daldi jël ab sarbet laxas ko ci ndigam noonu mu sotti ndox ci ab këll daldi tàmbale di raxas tànki taalibe ya di leen fomp ak sarbet ba mu laxasaayoo bi mu agsee ba ci simon piyeer kooku ne ko borom bi ndax yow danga nar a raxas samay tànk yéesu tontu ko ni xamoo fi mu nekk li may def waaye dinga ko xami piyeer ne ko déedéet duma nangu mukk nga raxas samay tànk yéesu ne ko su ma la raxasul doo bokk ak man dara simon piyeer ne ko kon nag borom bi bul yem rekk ci tànk yi waaye raxasaaleel loxo yi ak bopp bi yéesu ne ko ku sangu ba noppi soxlatu la raxas lu dul ay tànkam ndaxte seet na wecc yéen nag set ngeen waaye du ñépp fekk yéesu xamoon na ki ko nara wor looloo tax mu ne setu leen yéen ñépp bi mu leen raxasalee seeni tànk ba noppi yéesu dafa solaat mbubbam dellu toggaat ne leen ndax xam ngeen li ma leen defal yéen ngi may wooye kilifa gi ak boroom bi te wax ngeen dëgg moom laa kon bu fekkee ne man mi boroom bi tey kilifa gi maa leen raxasal seeni tànk yéen itam war ngeen di raxasalante seeni tànk bàyyil naa leen fii royukaay ngir ngeen di jëf nii ma jëfeek yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënula màgg sangam mbaa ndaw ki ko yónni ginnaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu dingeen bég yéen ñépp taxuleen may wax xam naa ñi ma tànn waaye li ni mi wax faw mu am bi ñu naan ki lekk sama dugub weq na ma maa ngi leen koy wax ci teel balaa looloo ñëw ngir bu ñëwee ngeen gëm ni may ki nekk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku nangu kenn ci ñii ma yónni nangu nga ma man itam te ku ma nangu nangu nga ki ma yónni bi yeesu waxee loolu ba noppi mu jàq biral ni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taalibe yi di xoolante te xamuñu kan lay wax ka yeesu bëggoon te mu bokkoon ca taalibe ya ma nga soonu woon ca kaw yéesu kooku la simon piyeer liyaar ngir mu laaj yéesu ki ko taxoon di wax taaliba ba daldi wëlbatiku ca yéesu laaj ko ne boroom bi kooku kan la yeesu ne ko dinaa capp dogu mburu ci ndab li ki ma koy jox kooku la noonu yéesu jël dogu mburu capp ko ca ndab la daldi koy jox yuda doomu simon iskariyo naka la yudaa jël dog wa seytaane dugg ci moom yéesu ne ko gaawantul ci li ngay def amul kenn ci ña fa toogoon ku xam lu tax mu wax ko loolu waaye ginnaaw yudaa moo yoroon boyetu xaalis bi am ñu xalaat ne yéesu dafa ko wax mu dem jëndi li war ci màggal gi walla mu ne ko mu dem sarax miskin yi yudaa nag jël dogu mburu ma daldi génn ca saasa booba guddi woon na bi yudaa génnee yeesu ne léegi nag ndamu doomi nit ki feeñ na te ndamu yàlla feeñ na itam ci moom te bu ma feeñalee ndamu yàlla yàlla itam ci teewaayam dina feeñal ndamu doomu nit ki te dina ko def léegi samay soppe sama nekk ak yéen dootul yàgg dingeen may seet waaye maa ngi leen di wax léegi li ma waxoon yawut ya fa ma jëm du ngeen fa mën a dem maa ngi leen di jox ndigal lu bees bëgganteleen leen na ngeen di bëggante ni ma leen bëggee ni ñuy xamee ne samay taalibe ngeen mooy ngeen bëggante Simon Pierre laaj ko ne borom bi foo jëm yéesu ne ko fa ma jëm mënuloo ma faa topp léegi waaye dinga ma toppi ca kanam piyeer ne ko borom bi lu tax mënuma laa topp léegi attan naa joxe sama bakkan ngir yow yeesu ne ko attan ngaa joxe sa bakkan ngir man ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax balaa ginaara sab dinga ma weddi ñetti yoon yoona saar fukk ak gëm leen yàlla te gëm ma am na néeg yu bari ca sama kër baay bu dul woon noonu ma wax leen ko ndaxte maa ngi dem defara leen fa ngeen di dëkk te su ma leen defaralee barab boobu ba noppi dinaa dellusi yu yóbbaale leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam te fa ma jëm xam ngeen yoon wi tomaa ko borom bi xamuñu fa nga jëm kon nan lañuy mën a xame yoon wi yéesu ne ko man maay yoon wi maay dëgg te dundit man la kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man ndegam xam ngeen ma dingeen xam itam sama baay lu weesu tey xam ngeen ko te gis ngeen ko filip ne ko borom bi wonnu baay bi loolu doy nanu yéesu tontu ko ne ni ma yàggeeg yéen te ba tey filip xamuloo ma ku ma gis gis nga baay bi kon nag nan ngay mën a laaje naan won nu baay bi xamuloo ni maa ngi nekk ci baay bi te baay baa ngi ci man kàddu yi ma leen di wax jógewuñu ci man waaye baay bi nekk ci man mooy matal ay jëfam gëm leen li ma leen wax ne maa ngi ci baay bi te baay baa ngi ci man walla boog gëmleen ndax jëf yi ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp ku ma gëm dina def moom itam jëf yi may def dina def sax yu gën a màgg ndaxte maa ngi dem ci baay bi te it lu ngeen ñaan ci sama tur dinaa ko def ngir doom ji feeñal ndamu baay bi lu ngeen ñaan ci sama tur maa koy def bu ngeen ma bëggee dingeen topp sama ndigal te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dëgg àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen duma leen bàyyi ngeen wéet dinaa dellusi ci yéen des na tuuti ci kanam àddina duma gisati waaye yéen dingeen ma gis dinaa dund moo tax yéen itam dingeen dund bu keroogee dingeen xam nag ne nekk naa ci sama baay yéen it nekk ngeen ci man te maa ngi nekk ci yéen ki ma bëgg mooy kiy nangu samay ndigal te di ko topp ku ma bëgg baay bi bëgg la te man dinaa la bëgg di la feeñu yuda du yuda iskariyode beneen la woon ne ko borom bi lu xew ba nga nar noo feeñu nun rekk te doo feeñu àddina sépp yéesu tontu ko ne ku ma bëgg dina sàmm sama kàddu sama baay dina ko bëgg te nun dinañu ñëw ci moom te dëkk ci moom ku ma bëggul doo sàmm sama kàddu li may wax nag jógewul ci man waaye mi ngi soqi ko ci ki ma yónni lii dama leen koy wax ci bi may nekk ak yéen waaye dimbilikat bi leen baay bi di yónnee ci sama tur muy xelam mu sell dina leen jàngal lépp di leen fàttali li ma leen waxoon lépp jàmm laa leen bàyyeel sama jàmm laa leen jox jàmm ju àddina mënula joxe bu leen jàq bu leen tiit dégg ngeen li ma leen wax dinaa dem waaye dinaa dellusi ci yéen bu ngeen ma bëggoon dingeen bég ci li may dem ca baay ba ndaxte baay bee ma gën a màgg wax naa leen ko nag léegi balaa looloo ñëw ngir bu waxtu wa agsee ngeen gëm lu weesu tey duma amati jot waxtaan ak yéen ndaxte malaaka mu bon mi jiite àddina saa ngi ñëw kooku mënuluma dara waaye àddina si war naa xam ne bëgg naa baay bi te ni ma ko baay bi sante ni laay jëfe jógleen ñu dem yoona saar fukk juróom man maay garab gu gi te sama baay mooy beykat bi car bu soqi ko ci man te dina ko dog sànni waaye car bu ci meññ dina ko tenqi ngir mu gën a meññ yéen nag baay bi setal na leen jaalale ko ci kàddu gi ma leen wax ni baykat di tenqee garabam saxleen ci man ma sax man itam ci yéen ni car mënula ame ay doom bu saxul ci garab noonu itam du ngeen mën a meññ li may jëfe ci yéen bu ngeen saxul ci man man maay garab gi yéen yéenay car yi ki sax ci man te ma sax ci moom dina meññ ndaxte bu ngeen saxul ci man du ngeen man dara ku saxul ci man dinañu ko sànni ci biti mu mel ni car bu ñu dagg ba mu wow car yu wow nag dañu leen di buub sànni ca safara ñu lakk bu ngeen saxee ci mante te saxal samay wax ci seen xol lu ngeen ñaan mu nangu li feeñal sama ndamu baay moo di ngeen di gën a meññ tey wone noonu ne samay taalibe ngeen ni ma baay bi bëgge noonu itam laa leen bëgge sax leen ci mbëggeel googu ma am ci yéen bu ngeen toppee samay ndigal dingeen sax ci sama mbëggeel ni ma toppe sama ndigali baay ba tax ma sax ci mbëggeelam wax naa leen loolu ngir ngeen bokk ci sama mbég te seen bos mat sëkk sama ndigeel mooy ngeen bëggante ni ma leen bëgge genn mbëggeel mënula weesu joxe sa bakkan ngir say xarit samay xarit ngeen ci kaw ngeen def li ma santaane dootuma leen wooye jaam ndaxte jaam du xam li sangam di def xarit laa leen wooye ndaxte xamal naa leen li ma jële lépp ci sama baay du yéen yéena ma tànn waaye man maa leen tànn sas leen ngeen dem meññ meññeef gu sax ngir baay bi def lu ngeen ko ñaan ci sama tur li may santaane nag mooy ngeen bëggante bu leen àddina bañee xam leen ni man lañu jëkk bañ ñi bokk ci ñoom lañu bëgg bu ngeen bokkoon ñoom dinañu leen bëgg ni ñu bëggee seeni ñooñ waaye bokk leen ci àddina ndaxte maa leen tànn ber leen looloo tax ñu bañ leen fàttaliku leen li ma leen wax jaam gënula màgg sangam bu ñu ma sonalee dinañu leen sonal yeen itam bu ñu toppee sama wax dinañu topp seen wax yéen itam waaye loolu lépp dinañu leen ko def ndax man ndaxte xamuñu ki ma yónni su ma ñëwul woon ne leen dara duñu am bàkkaar waaye léegi amuñu lay ngir seeni bàkkaar ku ma bañ bañ nga itam sama baay su ma deful woon ci seen biir jëf yu kenn deful kon duñu am bàkkaar waaye léegi nag gis nañu samay jëf te teewul ñu bañ nu man ak sama baay waaye loolu am na ngir kàddu gi am kàddu gi ñu bind ci seen yoon bañ nañu ma ci dara dimbalikat bi dina ñëw mooy xel mu jóge ci baay bi te yor dëgg gi dina jóge ci baay bi ma yebal ko ci yéen moom nag moo may seedeel yi te yéen itam dingeen seede samay mbir ndaxte yéen a nekkoon ak man ca njaalbeen ga yoona saar fukk ak loolu dama leen ko wax ngir seen ngëm bañ a wàññeeku dinañu leen dàq ci jàngu ya dinañu dem ba jamono joo xam ne ñi leen di rey dañuy xalaat ne ñu ngi màggal turu yàlla dinañu agsi foofu ndaxte xamuñu baay bi te xamuñu ma loolu nag wax naa leen ko ngir bu waxtu wi jotee ngeen fàttaliku ne yëgal naa leen ko waxuma leen ko ca njaalbéen ga ndaxte maa ngi nekkoon ak yéen léegi nag maa ngi dem ci ka ma yónni te kenn ci yéen laajuma fu ma jëm seen xool dafa jeex ndax li ma leen wax moo moona de ci sama wàll dëgg laa leen di wax li gën ci yéen mooy ma dem ndaxte su dul loolu dimbalikat bi du ñëw ci yéen waaye su ma demee dinaa leen ko yónnee te bu dikkee dina yey niti àddina ci lu jëm ci seen bàkkaar ci lu jëm ci sama njubte ak ci lu jëm ci àtte ba ci mbiri seen bàkkaar dina leen yey ci lu ñu ma gëmul ci mbiri sama njubte dina leen yey ndaxte maa ngi dem ci baay bi te du ngeen ma gisati ci mbiri àtte ba dina leen yey ndaxte àtte nañu malaaka mu bon mi jiite àddina si ba daan ko li ma leen war a wax bari na waaye du ngeen ko mën a dékku bu xelum yàlla mi yor dëgg gi dikkee nag dina leen gindi ci lépp li jëm ci yoonu dëgg ndaxte du wax ci coobare boppam waaye lu ko baay bi wax mu jottali leen ko dina leen yégal mbir yi ñëwagul dina ma màggal ndaxte lu mu leen wax ci man la ko jële lépp lu baay bi am maa ko moom looloo tax ma ni leen lu mu leen jottali ci man la ko jëlee ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ci tegee ab diir ngeen gisaat ma loolu yéesu wax tax na ba am ca taalibe ya ñu waxante ne lu muy wax nii ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ca tegee ab diir ngeen gisaat ma ak naan ndaxte maa ngi dem ca baay ba ñu ne teg cab diir lu muy tekki xamuñu li mu bëgg a wax yéesu gis ne am na lu ñu ko bëgg a laaj mu ne leen dama ni ca kanam tuuti du ngeen ma gis te bu ñu ca tegee ab diir ngeen gisaat ma ndax loolu ngeen di laajante ci seen biir ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax dingeen jooy xàcc waaye àddina dina bég dingeen jàq waaye seen njàqare dina soppali ko bànneex jigéen ju nekk ci mat dafay jàq ndaxte waxtu wi mu wara jur jot na waaye bu doom ji juddoo dina fàtte coonoom ndaxte day bég ci li doom ji gane àddina noonu nag ngeen di jàqe yéen itam waaye dinaa leen gisaat seeni xol sedd te seen mbég moomu kenn du ko mën a dindi bés boobu dootu leen ma laaj dara ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax baay bi dina leen may lu ngeen ko ñaan ci sama tur ba léegi ñaanagu leen dara ci sama tur ñaan leen mu nangu bu ko defee seen mbég mat loolu lépp dama leen ko wax ci ay misaal jamono dina ñëw ju ma dootul wax ak yéen ci ay misaal waaye ju ma leen dee wax lu leer ci baay bi bu keroogee dingeen ñaan ci sama tur néew ma dinaa leen ñaanal baay bi ndaxte baay bi ci boppam bëgg na leen bëgg na leen ndaxte bëgg ngeen ma te gëm ngeen ne ci yàlla laa jóge jóge naa ci baay bi ñëw àddina léegi maa ngi génn àddina fekki baay bi taalibe ye ne ko léegi yaa ngi wax lu leer te misaaloo léegi gis nanu ne xam nga lépp te soxlawul kenn di la laaj dara looloo tax nu xam ne yaa ngi jóge ci yàlla yeesu ne leen ndax gëm ngeen léegi waxtu waa ngi ñëw te agsi na ba noppi dingeen tasaaroo ku nekk ñibbi ma des man rekk waaye nag déedéet weetuma ndaxte baay baa ngi may li dama leen a wax loolu ngir ngeen am jàmm ci man dingeen am nattu ci àddina waaye takk leen fit yi noot naa àddina yoona sar fukk bi mu waxee loolu ba noppi yéesu dafa xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay waxtu wi tax ma ñëw ci àddina egsi na feeñalal ndamu doom ji ngir moom itam mu mën a feeñal sa ndam ndaxte jox nga ko sañsañ ci bépp mbindeef ngir mu may dund jeex gi ñi nga ko dénk dund gudul jeex gi nag moo ñu xam la yow jenn yàlla ju wóor ji am te ñu xamit ki nga yónni muy yéesu Kirist wone naa sa ndam ci àddina ndax li ma matal liggéey bi nga ma santoon léegi nag baay ci sa teewaay feeñalal ci man ndam li ma amoon ci sa wet laata àddina di sosu xamal naa sa tur nit ñi nga tànn ci àddina te dénk ma leen bokkoon nañu ci yow nga dénk ma leen te sàmm nañu sa kàddu xam nañu léegi ne loo ma joxan ci yow la jóge ndaxte xamal naa leen kàddu yi nga maw jox te nangu nañu ko wóor na leen ne ci yow laa jóge te gëm nañu ne yaa ma yónni ñoom laay ñaanal ñaanaluma waa àddina waaye maa ngi ñaanal ñi nga ma dénk ndaxte ci yow lañu bokk lu ma am yaa ko moom te loo am maa ko moom te ñoom ñoo feeñal sama ndam nekkatuma ci àddina waaye ñoom ñu ngi ci man ci yow laa jëm baay bu sell bi sàmm leen ci sa doole tuur woowu nga ma jox ngir ñu nekk benn ni ñu nekke benn man ak yow bi ma nekkee ak ñoom daanaa leen sàmm ci sa dooley tur tur wi nga ma jox wattu naa leen ba kenn ci ñoom sànkuwul lu dul kiy aji réer ji ngir li mbind mi waxoon am waaye léegi maa ngi jëm sa ci yow te maa ngi wax nii ci bi may nekk àddina ngir ñu fees ak sama mbég jottali naa leen sa kàddu te àddina bañ leen ndax li ñu mel ni man bañe bokk ci àddina soosu ñaanuma nga jële leen àddina waaye nga yiir leen ci ibliis dañoo mel ni man bokkuñu ci àddina samp leen ci dëgg ngir ñu sell sa kàddu mooy dëgg ni nga ma yónnee àddina noonu laa leen yónnee ci nit ñi sellal naa sama bopp ngir ñoom ngir ñu samp ci dëgg te sell ñaanal leen ñoom rekk waaye itam ñi may gëm ëllëg ndax seen wax damay ñaan ngir ñépp doon benn baay na ñu nekk benn ci nun ni nga nekke ci man te ma nekk ko ci yow nañu ànd ba àddina gëm ne yaa ma yónni boole naa leen ci ndam li nga ma sol ngir ñu àndandoo ni ñu ànde man ak yow man ci ñoom yow it ci man ngir ñu gën a ànd nekk benn ba àddina xam ne yaa ma yónni xam ne bëgg nga leen ni nga ma bëgge baay bëgg naa ñi nga ma dénk nekk ak man fa ma jëm ngir ñu gis sama ndam li nga ma sol ndaxte bëgg nga ma laata àddina di sosu baay yow ku jub ki waa àddina xamuñu la waaye man xam naa la te ñii xam nañu ne yaa ma yónni xamal naa leen sa tur te dinaa ko gën a xamle ngir mbëggeel gi nga am ci man nekk ci ñoom te manit ma nekk ci ñoom yoona saar fukk ak bi mu waxee noonu ba noppi yéesu jóge fa ak i taalibeem jàll xuru sedron dugg cib tool yudaa mi ko naroon wóor xamoon na it barab ba ndaxte yéesu daan fa dem ak ay taalibeem yudaa daldi fa dem yóbbaale mbooloom xarekat ak ay alkaati yu ko saraxalekat yu mag ya ak farisiyen ya jox ñu yor ay jum ak ay làmp ak it gànnaay noonu yéesu mi xamoon li ko waroon a dal lépp jub si leen ne leen ku ngeen di seet ñu ne ko yeesum nasaret yéesu ne man la fekk yudaa mi ko nara woor ma nga ànd ak ñoom bi leen yeesu ne man la ñu daldi dellu ginnaaw ba daanu yéesu laajaat leen ne ku ngeen di seet ñu ne ko yéesu nasaret mu ne leen wax naa leen ne man la bu fekkee ne nag man ngeen di seet bàyyi leen ñii ma àndal ñu dem noonu la baat boobu mu waxoon ame baay kenn sànkuwul ci ñi nga ma dénk bi yéesu waxee loolu ba noppi simon piyeer bocci yi ji mu yoroon daldi dóor surgaab saraxalekat bu mag ba nopp ndeyjooram dagg surga boobu mu ngi tuddoon malkus waaye yeesu ne piyeer roofal jaasi ji ci mbaram ndax waruma naan kaasu naqar bi ma baay bi sedd mbooloom xarekat ya ak seen kilifa ak alkaati yawut ya jàpp yeesu daldi yeew jëkk ko yóbbu ca anaas ndaxte anaas mooy gorob kayif mi doon saraxalekat bu mag ba at mooma kayif moo digaloon yawut ya ne li gën moo di kenn rekk dee ngir mbooloo mi mucc bi ñuy yóbbu yeesu simon piyeer ak keneen ca taalibe ya toppoon nañu ko keneen kooku nag xamante na ak saraxalekat bu mag ba moo waral mu duggaaleeg yeesu ca biir kër kilifa ga waaye piyeer moom des ca buntu kër ga noonu taalibe boobu xamante woon ak saraxalekat bu mag ba génn wax ak jigéen ja doon wottu buntu kër ga fexe piyeer dugg ci biir mbindaan mi doon wottu bunt bi ne piyeer mbaa yow it bokkuloo ci taalibe waa ji mu ne ko déedéet bokkuma ci booba dafa seddoon ba surga ya ak alkati ya booyal ab taal di ca jaaru piyeer itam taxaw di jaaru ak ñoom saraxalekat bu mag bi daldi laaj yéesu ci lu jëm ci taalibeem yi ak ci njàngaleem mi yéesu tontu ko ni ci mbooloo laa doon waxe ca kër yàlla ga ak ci ay jàngu fa yawut yépp di daje laa mas di jàngale musuma wax dara di ko nëbb lu tax nga may laaj laajal ñi doon déglu li ma leen wax ñoom xam nañu li ma doon wax bi yeesu waxe loolu kenn ci alkaati yi nekkoon ci wetam daldi koy pes ne ko ndax nii ngay tontoo saraxalekat bu mag bi yéesu tontu ko ni su ma waxee lu jaaduwul wone ko waaye su ma waxee lu jub lu tax nga may dóor anaas daldi koy yebal ca kayif saraxalekat bu mag ba ñu yeew ko ba tey fekk na booba simon piyeer moom ma nga taxaw di jaaru rekk ñu laaj ko ne mbaa yewit bokkuloo ci taalibey waa ji waaye piyeer weddi ko ne déedéet bokkuma ci kenn ci surgaay saraxalekat bu mag ba di mbokku ka piyeer coroon noppam ne piyeer xanaa du yow laa gisoon ak moom ca tool ba waaye piyeer dellu weddi ko noonu ginaar daldi sab bi loolu wéyee ñu jële yeesu ca kayif yóbbu ko ca kër boroom réew ma ci waxtu njël la woon waaye yawut ya yéeguñu ca taaxum kaw ma dañoo bañoon a taq sobe ngir mën a lekk ca ñamu màggalu jéggi ba looloo tax pilaat boroom réew ma génn dajeek ñoom mu laaj leen ni lu ngeen di jiiñ waaj yi ñu tontu ko ne bu deful woon lu bon duñu la ko jébbal si pilaat ne leen jël ko yéen te àtte ko ci seen yoon yawut yi ne ko yoon mayuñu ñu àtte nit teg ko dee noonu la kàddu yéesu gi amee ci li mu misaaloon ni mu war a faatoo ginnaaw loolu pilaat duggaat ca taaxum kaw ma woo yeesu ne ko ndax yaa di buuru yawut yi yéesu tontu ko ne ndax yaa ko xalaat wax ko am dañu la ko xelal ci man pilaat ne ko mbaa xalaatoo ne man yawut la sa xeet ak saraxalekat yu mag yi ñoo ma la jébbal lan nga def yeesu tontu sama kilifteef nekkul ci àddina bu sama kilifteef nekkoon àddina sama surga yi dinañu xeex ngir bañ ñu jébbal ma yewut yi waaye sama kilifteef nekkul àddina pilaat ne ko kon yow buur nga yeesu tontu ko wax nga ko buur laa lii moo tax ma juddu ñëw àddina ngir wax dëgg gi ku bokk ci dëgg dina nangu li ma wax pilaat laaj ko ne luy dëgg gi bi mu waxee loolu ba noppi pilaat daldi génnaat jëm ca yawut ya ne leen gisuma ci moom genn tooñ seen aada laaj na ma bàyyi leen kenn saa suñuy def màggalu bésu jégg bi xanaa ma bàyyi leen buuru yawut yi noonu ñu daldi yuuxuwaat déedéet waxunu kii barabaas wax fekk barabaas moomu taskatu réew la woon yowaana saar fukk pilaat joxe ndigal ñu dóor yéesu ay yar xarekat ya ràbb kaalaak dég teg ko ci boppu yéesu solal ko mbubbam xarekat mu xonq cur ñu di ko jegeñ si di ko pes naan ko nuyu nañu la yow buuru yawut yi pilaat génnaat neleen gis ngeen maa ngi leen koy indil ci biti ngir ngeen xam ni waa ji gisuma ci moom genn tooñ yeesu nag génn tegoo mbubbam xarekat mu xonq mi ak kaalak dég gi pilaat it ne leen waa jaa ngi waaye bi ñu ko gisee saraxalekat yu mag ya ak alkaati ya di yuuxoo naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ne leen jël leen ko yéen daaj ko ci bant ndaxte gisuma ci moom genn tooñ yawut ya tontu ko ne am nanu aw yoon te ci yoon woowu war naa dee ndaxte teg na boppam doomu yàlla bi pilaat déggee wax jooju dafa gën a tiit dugg ca taax ma daldi ne yeesu foo jóge waaye yéesu tontuwu ko pilaat ne ko man ngay bañ a waxal xanaa xamuloo ni am naa sañ-sañu bàyyi la te am naa itam sañ-sañu daaj la ci bant yeesu tontu ko ne amuloo benn sañ-sañ ci man su dul bi yàlla jox looloo tax ba ki ma jébbal ci say loxo am na bakaar bi gën a rëy booba nag la pilaat doon fexe bàyyi yeesu waaye yewut yi di yuuxoo naan boo bàyyee kii doo xaritu buur bi sesaar nit ku teg boppam buur noonub sesaar la bi pilaat déggee loolu mu daldi génne yéesu ca biti dem toog ci jallub atekaay ba ca fa ñuy wax berabu doj ya ci làkku yawut ñu naan ko gabata ca bés ba ñuy waajal màggalu jéggi ba ba ca wetu digg bëccëg pilaat ne yawut ya seen buur a ngi waaye ñu yuuxoo naan na dee na dee daaj ko ci bant pilaat ne leen ndax seen buur bi dama ko war a daaj ci bant saraxalekat yu mag ya ne ko amunu benn buur bu dul sesaar noonu pilaat jébbal leen yeesu ngir ñu daaj ko ci bant bileen ko pilaat jébbalee ñu jël ko yóbbu yéesu ci boppam gàddu bant ba génn ngir dem ca fa ñuy wax bere bu kàngu bopp ñu koy wooye golgota ci làkku yawut foofu la xarekat ya daaje yéesu ca bant ba ci noonu it ñu daajaale ñaari nit ci wetam mu nekk ca digg ba pilaat santaane itam ñu bind teg ko ca kaw bant ba ñu ko daajoon mbind ma lii la wax kii mooy yeesum nasaret buur yawut yi mbind mooma yawut yu bari jàng nañu ko ndaxte fa ñu daajoon yeesu ca bant ba jege woon na dëkk ba te mbind ma ci làkku yawut la woon ci làkku waa ak ci grek noonu saraxalekat yu mag yu yawut ya ne pilaat bul bind buur yawut bindal rekk kii moo ni mooy buur yawut yi pilaat tontu leen ne xas naa koo bind du deñ xarekat ya bi ñu daajee yeesu ca bant ba ba noppi dañoo jël ay yéeréem seddale ko ñeenti cër ku nekk benn jël na nañu it mbubbam bi ñu ràbbi ca kaw ba ca suuf te amul benn ñaw xarekat yi di waxante naan mbubb mi bu nu ko xotti waaye nanu ko tegoo ay bant ngir xam ku koy moom noonu la mbind mi waroon a amee bi mu naan séddoo nañu sama yéere tegoo ay bant sama mbubb loolu nag laxarekat xarekat def ca wetu bant ba ñu daajoon yaayam a nga fa taxawoon moom ak doomi ndeyam ju jigéen maryaama jabari kolopaas ak maryaama mi dëkk magdala bi yeesu gisee yaayam taxaw ci wetu taalibe bi mu bëggoon mu ne ko soxna si sa doom a ngi neeti taalibe ba sa yaay a ngi nii booba la ko taalibe ba yóbbu këram yor ko bi loolu wéyee ginnaaw yeesu xam na ni lépp mat na léegi mu ne nag ngir amal mbind mi dama mar amoon na foofu gudd bu fees ak bineegar noonu ñu jël sagar tooyal ko ca takk ko ci bantu garab gi ñuy wax isop teg ko ci gémmiñu yéesu bi yeesu muucoo bineegar bi mu ne lépp mat na noonu mu sëgg delloo ruwaam yàlla keroog ba ñu dee waajal bisu noflaay ba la woon te yawut yi bëgguñu néew ya des ca bant ya ndaxte bisu noflaay boobu fonkoon nañu ko lool ñu ñaan pilaat mu damulu tànk yi ña ñu daajoon te jële leen fa noonu xarekat ya dem dami tànk ku jëkk ko teg ca ka ca des ca ña ñu daajaale woon ak yéesu bi ñu egsee ci yéesu damuñu ay tànkam ndaxte gis nañu ne booba faatu na waaye kenn ca xarekat ya daldi jël xeej jam ko ko ci wet ca saasa deret ak ndox di tuuru kii nettali mbir yooyu da cee teg bëtam te li muy wax dëgg la moom ci boppam xam na ni li muy wax dëgg la ngir yéen itam ngeen gëm ndaxte loolu dafa xew ngir mbind mi am benn yaxam du damm leneen it mbind mi wax na ko dinañu gis ki jamoon ginnaaw loolu yuusufa mi dëkk arimate ñaan pilaat ngir yóbbu néewu yéesu yuusufa taalibe yeesu la woon ci lu kenn yëgul ndaxte dafa ragaloon yawut ya pilaat may ko ko yuusufa daldi dem yóbbu ni ko dem itam ñëw moom mi mosoon a seeti yeesu guddi mu indaale lu war a tolloog fanweeri kilooy cuuraay lu ñu defare ndabi miir ak banti aloos ñu jël néewu yéesu laxas ko ci càngaay boole ko ak cuuraay li ni ko yawut yi taamoo def bu ñuy waajal néew toola nga woon ca wetu barab ba ñu daajoon yéesu te ca tool booba amoon na fa bàmmeel bu ñu musula suul kenn bisu waajal la woon ba yawut waajal bisu noflaay ba te bàmmeel ba jege woon na foofa lañu denc yeesu yowaana sar bés ba jiitu ca ayu bés ga maryaama magdala jóg ca fajar dem ca bàmmeel ba bi mu egsee mu gis ne dindi nañu xeer ñu ko ube woon mu daw dem ca Simon Pierre ak ca beneen taalibe ba maanaam ka Yeesu bëggoon ne leen jële nañu néewu borom ba ca bàmmeel ba te xamuñu fa ñu ko yóbbu Pierre ak beneen taalibe ba daw dem ca bàmmeel ba ñoom ñaar ñépp a ngi doon daw waaye beneen taalibe ba raw Pierre jëkku ko ca bàmmeel ba duggul nag dafa sëgg yër seen càngaay la ca suuf noonu Simon Pierre mi ko toppoon agsi daldi dugg mu seen càngaay la ca suuf ak kaala ga muuroon boppu yéesu waaye kaale googu àndul ak càngaay la dañu ko laxas teg ko ci wet noonu keneen ka jiitu woon ca bàmmeel ba dugg ci moom itam naka la gis daldi gëm taalibe yi xamaguñu woon mbind mi doon wone ne yéesu dafa war a dekki noonu taalibe ya dëpp ñibbi maryaama nag moom ma nga desoon ci biti ci wetu bàmmeel ba di jooy bi muy jooy mu sëgg yér ci biir seen ñaari malaaka yu sol mbubb yu weex toog ca barab ba ñu dencoon yéesu kenn ka féeteeg bopp bi ka ca des ca tànk ya malaaka ya laaj ko ne jigéen ji looy jooy mu tontu leen ne dañoo jël sama boroom te xawma fu ñu ko yóbbu bi mu waxee loolu mu gestu seen yeesu mu taxaw waaye xamul woon ni moom la yéesu laaj ko ne jigéen ji loo jooy koy seet mu foog ni boroom tool ba ne ko sëriñ bi su fekkee ne yaa ko yóbbu wax ma foo ko denc ma jëli ko noonu yéesu ne ko maryaama mu wëlbatiku làkk ko ci yawut ne ko rabboni ni mooy tekki kilifa gi yéesu ne ko bu ma téyee ndaxte yégaguma ca baay ba waaye demal ni samay mbokk maa ngi yëg ci sama baay bii seen baay te sama yàlla di seen yàlla noonu maryaama magdala dem yëgali ko taalibe ya ne leen gis naa boroom bi mu daldi leen nettali li mu ko wax bés booba ca ngoon sa taalibe yaa nga daje woon ca genn kër tëju ca biir ndax ragal yawut ya yeesu ne tëll ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen mu daldi leen woon ay loxoom ak wetam bi ñu gisee boroom bi taalibe yi daldi bég lool yéesu dellu ne leen na jàmm wàcc ci yéen ni ma baay bi yónnee noonu laa leen di yónnee man itam bi mu waxee loolu mu ëf leen ne leen sol naa leen xelu yàlla mu sell mi ñi ngeen di baal seeni bàkkaar baal nañu leen ba noppi ñi ngeen balul baaluñu leen fekk na tomaa mi bokk ci fukki taalibe yi ak ñaar te turam di tekki seex bi nekk fa woon bi yeesu ñëwee yeneen taalibe yi ne ko gis nañu boroom bi waaye mu ne leen su ma gisul fa ñu daajoon ponte ci ay loxoom te defuma ci sama baaraam su ma tegul it sama loxo ci wetam duma ko gëm mukk ba ñu ca tegee ayubés taalibe yeesu ya dajewaat ca biir kër ga tomaa itam a nga fa woon bunt yépp tëju woon nañu waaye yeesu ne tëll ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen noonu mu ne tomaa indil sa baaraam fii te seet sama loxo indil sa loxo teg ko ci sama wet bàyyil di wet di te nga gëm tomaa tontu ko ni sama boroom sama yàlla yéesu ne ko li nga ma gis a tax nga gëm kiy bég mooy ki gëm te gisuma yéesu wone na it ci kanamu taalibe ya yeneen firnde yu ñu nettiwul ci téere bii waaye li ci nekk bind nañu ko ngir ngeen gëm ne yéesu mooy almasi bi doomu yàlla ji te seen ngëm may leen ngeen am ci moom dund yowaana ba ñu ca tegee ab diir yéesu feeñuwaat na ay taalibeem ca tefesu dex gañuy wax tiberiyaad nii la deme woon taalibe yeesu yi àndoon nañu simon pierre tomaa ki turam di tekki seex bi nataneyel mi dëkk kana ca diiwaanu galile doomi sebede ak yeneen ñaari taalibe simon piyeer ne leen maa ngi nappi ñu ne ko nu nit dañuy ànd ak yow ñu dugg gaal daldi dem waaye guddi googu jàppuñu dara ca fajar gi yeesu taxaw ca tefes ga waaye taalibe yi xàmmewuñu ko yéesu ne leen nag mbokk yi xanaa jàppu leen jën ñu ne ko déedéet mu ne leen sànni leen mbaal mi ca ndeyjooru gaal gi bu ko defee ngeen jàpp ñu sànni fa mbaal ma mu fees ak jën ba mënuñu ko woon génne ndox mi taalibe ba yeesu bëggoon ne piyeer borom bi la bi simon piyeer déggee loolu dafa woddoo mbubbam ndaxte dafa summeeku woon daldi soobu ci dex gi yeneen taalibe ya xëcc mbaal mi fees dell ak jën jëme ko ca tefes ga ndaxte gaal go soriwul woon diggante bi waroon naa tolloog téeméeri meetar bi ñu teeree ñu gis ab taal ñu ciy lakk ay jën teg mburu ca wet ga yeesu ne leen indi leen ci jën yi ngeen jàpp simon piyeer yéeg ca gaal ga daldi xëcc mbaal ma ca tefes ga mu fees dell ak jën yu mag matoon na téeméeri jën ak juróom fukk ak ñett te li muy bari bari lépp taxul mbaal ma dog yéesu ne leen ñëw leen ndekki kenn ci taalibe yi ñimewu ko laaj ki mu doon ndaxte xam nañu ne borom bi la yéesu jigéen si jël mburu mi jox leen jox leen it jën bi yéesu dekkee ba tey bi mooy ñetteelu yoon bi mu feeñoo ay bi ñu ndekkee ba noppi yeesu ne simon piyeer simon doomu yowaana ndax gën nga ma bëgg ni ma ñiy bëggee mu tontu ko ne axa kay borom bi xam nga ni bëgg naa la yeesu ne ko toppatool ma sama mbote yi noonu mu waxaat ko ne simon doomu yowaana ndax bëgg nga ma mu ne ko axa borom bi xam nga ni bëgg naa la yéesu ne ko sàmmal ma sama xar yi mu neeti ko ñetteel bi yoon simon doomu yowaana bëgg nga maam piyeer am na naqar ci li mu ko laaj ñetti yoon ndax bëgg nga ma mu tontu ko ne borom bi xam nga lépp xam nga ni bëgg naa la yéesu ne ko toppatool ma sama xar yi ci dëgg-dëgg piyeer maa ngi la koy wax bi nga dee ndaw yaa doon takk sa giño di dem fu la neex waaye boo màggatee dinga tàllal say loxo keneen takkal la sa giño yóbbu la foo bëggul ci baat yooyu la yéesu doon misaale nan la piyeer war faatoo ngir jollil ndamu yàlla noonu yeesu ne ko toppal ci man piyeer gestu gis taalibe bi yeesu bëggoon di ñëw ci seen ginnaaw taalibe boobu mooy ki soonu woon ca yeesu ba ñuy lekk te laajoon ko ne borom bi kan moo lay wori piyeer gis ko daldi ne yéesu kii nag borom bi nu muy mujje yéesu ne ko su ma neexoon mu dund ba ma dellusi lu ci sa yoon yow toppal ci man noonu am ci mbokki taalibe yi ñu xalaat ne taalibe boobu du dee moo na yeesu musul ne piyeer du dee waaye li mu wax mooy su ma neexoon mu dund ba ma dellusi lu ci sa yoon taalibe boobu mooy seede mbir yooyu bind leen te xam nañu ne li muy wax dëgg la suñu ko doon nettali bind lépp xalaat naa ni téere yi duñu xej ci àddina